maa ak mooko ak ñoo ko dana bokk nu waaye bokk nu funu lépp ñëpp lu ne ku ne nga ca la 2STV c'est la télévision autrement mbokk yi seen plateau bu mag bi la moo dikkaat ak yéen ci mbaax plateau spécial tam xarit ci studio wu mag wi la nga xam ne tubarkàlla macha allah ci suñu tuxu wu yees wi bi nu tuxu ak léegi ku gis na ne danoo yokk waaye wàññiwuñu tey la plateau yi gën a rafet tey la image yi gën a leer waaye tey la tubaarkàlla macha allah jonga ma jeeg ji ñagamaar jeeg jànk ji gën a yees pekk jëme ci tele bi waaye tey la góor yàlla yi gën a jantal tubaarkàlla macha allah tubaarkàlla nag li ko waral mooy lu yëngu lu ne la ko yëngal ko doole la 2STV dafa def li tubaab tuddee reculer pour mieux sauter doon arrière tuuti ci ginnaaw daal di mel lu def benn stand by lu toll ci juróom benn weer yoo xam ne benn ba ñaar ba ñetti émission la ñu maintenir yi ki des yëpp ñu laqaat ci ruq di yeesalaat waaye ci biir yeesalaat bi ñu ngi yeesal émission yi waaye ñu ngi yeesalaat jëmm yi ñu ngi yeesalaat nit ñi defaat nañ fi ay formation ci wàllu télévision sunu directeur sunu kilifa alaaji Abdoul Ndiaye yàlla ko yàlla guddal fanam tubéral ay cëram doomi alaaji Ndiaye ak Mariam Mariam Abdoul na nañu cuuru ku boole ñoo ko ay kilifa ñoo am xam-xam bu yees bu nu defaat ci ñun ci wàllu télévision ku gis juróom benn weer yi mujj avant fan daan animé ak fii nuy animé tey di xam ne ak coppi am na te coppiku googu du dara lu dul formation boo xam ne la télévision autrement dafa jël ay responsabilités ak engagement am fay ay millions yu weex tàll ngir ñu defal ñu ko ñun ay animateurs yi nekk ci kër gi. kon tey yaakaar naa ne ku yokkul yaa wàññi qui peut le plus peut le moins tey bu yàlla dogalee tawféex ak xéewal ak yokkute di jóge ci ñoom di ñëw ci ñun lenn rek mooy yéene bi lenn rek mooy objectif bi mooy bëggal téléspectateurs yi sant leen gërëm leen delloo leen jukkal rek nuy war waaye di bis boo xam ne bisu baalonte àq la di bis boo xam ne tubaarkàlla macha allah mooy suñu premier janvier ñun jullit di bis boo xam ne tubaarkàlla bu ñu nee tamxarit bu ñu nee taajaboon tubaarkàlla xam ne taarix lim ci wane bari na waaye nag tubaarkàlla macha allah diine ak lislaam lim ci feeñal ak lim ci xewal bari na mbokki bu ñu fàtte ne bis bi bis la boo xam ne diine def ceet am taxawaay bu am solo taxawaay bu am solo la ci diina am taxawaay boo xam ne du lu ñuy laam-laamee lu leer naññ la ndax bari na ci ay yonent yàlla yoo xam ne am nañu jaar-jaar ci bis bii nga xam ne mooy bisu tam xarit mbokk yi balaa ñuy dugg ci waxtaan bi balaa may jox sama nawle yi ma toogal ñu nuyoo dama bëgg ñu ñëw tuuti ci taarix dama bëgg ñu ñëw tuuti ci démb yonent yàlla Ibrahima ku ne xam na ne keroog ba koy noon yi jàppee yéeféer yi tàbbal ko ca fi nga xam ne mooy ca safara ga bis bii la tombale woon di bisub tam xarit bi ñu sànni yonent yàlla Ibrahima ci safara ga yàlla daa jox ndigal safara sax ne ko digal naa la bu laq Ibrahima ci yàlla Ibrahima tàbbi ci safara gi sedd mu sedd ba yàgg yàlla ne ko fexeel ba bul bul bu ko teg ci yaram bi lu ko naqari mooy bu mu tàng bu mu sedd na nekk ci jàmm booba xaddis ku ne xam na ni ci bisu tamxarit la xewoon waaye mbokk yi yonent yàlla noo ku ne xam na ne dafa woote neuf cent cinquante ans kenn topp ko ñi ko topp boo ci génnee jabaram ak ay doomam ak ay mbokkam ak ay cousin ma cousine am ña cay tegu duñ doon ñaar fukki nit keroog ba mu yettee gaal wa fa seen tàbbi ci géej gi ñaan yàlla mu tukkal jamono ak xeet gi nga xam ne tey ci ñoom la ko yàlla yebaloon te mu woote ñu bañ ko wuy ji keroog ba mu wootee après neuf bi mu yettee gaal bi ci ndigalu suñu borom dugal ci jëmmam dugal ci ñi ko bëgg ak ñi ko wóolu keroog ba mu déparé ñañu ko wootaloo woon te ñu bañ na duñ ko topp keroog ndox ma daa bënn ci seen suuf taw mi wàcc seen kaw ba noonu la seen jamono dëppoo te foofee la yàlla jaar alag leen te alag woow ma nga xewe woon ci bisub tam xarit mbokk yi yonent yàlla Muusa ku ne xam na ne bi ko Firawna dàq ji muy tàbbi ci géej gi bisub tam xarit waaye bi mu ko dàq jee mu ñëw ba tiim géej bi dóor yat wi géej gi daal di xar ñaar mu xuus bi mu xuusee ba romb moog njabootam Firawna topp ci ginna ginnaawam di ko dàq ji daal dóoraat yat wi ci géej gi géej gi daal di tëju Firawna daal di lapp ak njabootam taarix woowee ma nga xewe woon ci bis bii nga xam ne mooy bisub tam xarit waaye mbokk yi kii nga xam ne tubaarkàlla macha allah mooy ci yàlla Jésus ibnu Mariama ñu koy wax Insa ab yonent yàlla Idrissa ku ne xam ne dañ ñooy ñaari yonent yi amul bàmmeel yonent yàlla Jésus ba àddunay tukki doo dégg na fii lan ko denc yonent yàlla Idrissa ba àddunay tukki doo dégg na fii lan ko denc ndax ñoom dañoo yàlla da leen rañaane mooy daa jël seenu jëm yóbbuwaat ca ñoom faatuwuñu ba tey jii may wax ak yow génnuñu àdduna làkkuwuñu parce que dañu nekk ñaari yonent yoo xam ne dañu dellusiwaat jamono mu yonent yàlla Jésus Isa ak yonent yàlla Idrissa yàllaa jël seen jëm rañaane leen delloowaat leen ca jëmmam ja te bis bee mu koy def mi ngi dëppoo woon ak bisu bii nga xam ne mooy bisu tam waaye mbokk yi yonent yàlla yusufa borom taar wu réew wi ci juróom-ñaari at yonent yàlla yusufa la ko doomi bàyyi fiiraange doomi bàyyi yàgg na ak ñun fiiraange doomi bàyyi yàgg na ci àddina doomi bàyyi iññaane doomi bàyyam doomi bàyyi soxore doomi baayam yàgg na ci àddina ndax ku ne xam na ne yonent yàlla yusufa bi mu amee juróom-ñaari at la ko ay doomi baayam kompaloo jël ko tàbbil ko ci teen teen woowee ñu ko tàbbil ay doomi aadaam may dox ba soxla aw ndox wu naan sànni seenu baak dugal di rootum ndox di xëcc ndox bi yonent yàlla yusufa di jàpp ci teen di jàpp ci baag bi di yéeg ba keroog muy tàbbi ci seen jëmm te boobu mi ngi am juróom-ñaari at bi ñu ko jàppee taar wa nga xam ne yàllaa ko bindee mu taaru lool dañu ko gis rek na xale bu rafet bii nan la mën a nekkee fii ci la ñu wékkati yonent yàlla yusufa daal di koy yóbbu jaay ko buur bi waaye mbokk yi bu nu fàtte yonent yàlla yunus yonent yàlla yunus moom la jën bi lekkoon di yonent yàlla yunus jën da koo lekk beneen jën lekk jën wa mu nekk ci biir ñaari jën ci bis bu tedd bii di bisub tam xarit la ko jën bi gokki ci tefesu géej gi ca la mucc mook njabootam mbokk yi yonent yàlla aadama moom la yàlla njëkk sàkk ci doomi aadama bu nu sàkkee tey moom moo tax ñun bu ñu amee rek yonent yàlla aadama képp ko waral keroog ba mu tooñee yàlla ci àjjana yàlla wàccee ko àddina wàccee sunu maam awa gannaaw bi ñu wàccee rek ñoom ñaar dañoo réeroo aadama réer jaar ndeyjoor awa réer jaar càmmoñ ñu réer juróom juróom juróom ñett fukki at mooy quatre-vingts ans juróom ñett fukki at quatre-vingts ans yonent yàlla aadama ak soxnaam soxna sa awa réer nañu di seetante ñoom ñaar quatre-vingts ans après lanu daje fii ci Màkka bisu tam xarit la daja ba xewee kon bis bi di bis bu rëy mbokk yi waaye li ci gën a marqué diina ak lislaam bis bii li ma leen wax ci jaar-jaaru bis bi jëm ci diina ak lislaam jëm ci yonenti yàlla yi waaye mbokki li ci gën a marqué nit ñi gën a marqué jullit yi gën ñoo marqué ñun ñii sénégalais yi mooy Ousseynou bu ñu nee Ousseynou sët la ci Muhammadu Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam Ousseynou ku ne xam na ni Alioune saxaaba yonenti yàlla bu tedd boobu Seydina Mohamed sallallaahu alayhi wa mooy baayam waaye soxna Fatimatu bintu Rasul mooy yaayam. keroog ba muy xeex ak noonu ya ca Karbala keroog ba Ousseynou di xeex ak noon yi ca Karbala bisu tam xarit la woon noon ya jàmbarloo ak moom muy rey ca ñoom ñuy rey ca moom muy rey ca ñoom ñuy rey ca moom muy rey ca moom ñuy rey ca moom ba yàlla dogal ñu dagg baat ba keroog ba nu daggee baat bi ci bisu tam xarit ca Karbala baat ba lañ jël di ko footballeet seen tànk ak di ko paasante ci seen loxo histoire indi na ni keroog ca Karbala ci bisu Tamxarit noonu ñu doon def boppu Seynu bi mu indi football ak basket ndax gannaaw bi ñu daggee bopp bi dañ jàpp ci bopp bi di ko paasante ñii di ko paasante ci seeni loxo ñii di ko paasante ci seeni tànk. yéeféer ya am ndam lool daal di sagu daal di kontaan na am nanu ndam Ousseynou noo fi desoon ci sët gannaaw Assane bi nu ko booleek ñenn ci ñun ci yéeféer yi ñu jaar ci soxnaam poisonné ko mu dee Ousseynou fi desoon moo waroon a donn diina ji moo waroon a donn maamam Muhammadu Rasulullah faat na lu Ousseynou diina dee na diina faat na diina dootul jolli fii ci àddina daal di jël bopp Ousseynou ba di ko paasante di ko futbalee di ko sànnante ba mu neex leen ñu woote mbootaay yi daal di togg ñam mu bari di berne ca dëkk ba ñoom yéeféer yi ci biir berne bi kenn ci ñoom daal di kat nanu xool gannaaw tey faat nanu Ousseynou nanu xool li gën a naqari jullit yi lii leen gën a metti ci seen xol ñu jël ko tey daal di leen koy ñaawale ca la kenn ci ñoom daal di rëkkati loo xam ne man mii maa xam li leen metti diina jullit jii nga xam ne mooy diine diine lislaam leen rek a leen metti li leen naqari bari na waaye lii bokk na ci li leen gën a metti ñu ne ko lan la mu ne ay góor yuy nduru nduru lu jigéen ak ay jigéen yuy nduru nduru lu góor mbooloo ma jug gannaaw togg nañ seen i berne yu doy indi seen i xeeti naan ak seeni xeeti yi fa seen a feetu victoire bi nga xam ne am nañ ko ci kaw julliti gannaaw ba ñu rey Ousseynou góor ña bañ jugee si mi seen i yére jox jigéen ñi ñu sol jigéen ñi futti seen yére jox góor ñu ñu sol loolu moo indi taarixu taajaboon ba ko yéefar yi def dañ ko defoon ngir ñaawal jullit yi tey amaana ñun ñu ngi koy def te xamuñu ki dara amaana ñun ñu ngi koy def te xamuñu sax fa mu jugee waaye nanu bàyyi xel ne keroog ba yéeféer yi futteekoo góor ñi jox jigéen ñi seen yére jigéen ñi jox góor ñi seen yére ngir ñaawal diine ak lislaam la woon ndax keroog ci bis boobu lañu tër ki nga xam ne mooy Useynu ibnu Taalib te ci bisub tamxarit la xewee woon mbokk yi li xew ci bisub tam xarit tënku ci diine ak lislaam lu xew ci bisub tam xarit tënku ci téere bii di téere alquraanu karim yàlla bind ko bàyyi ko ñun bu nu ko doon wax tey fii la ñuy fanaan waaye nag lu mënul ñàkk faw day am bis bi ñu toll mënta am diine bay ci waaram bi mu ci way li ci xew xew ci ñu ay jullit ñu tuddee nu Seydina bu bunu Xataab ñu yor plateau bu mag bu ñu toll fas yéene toog ba dem te duñ ci ay leeral waaye nag yaakaar naa ne tubaarkàlla macha allah sant yàlla war na jaam ci at bu jot li nu yàlla di may ñu di ko fekkee li ci gën a doy waar nag ma di ko tëjee mooy bis bii di bisub tam xarit mooy bisu confirmation wu suñu borom yàlla bisub léeg-léetu xadri lay tànn ay dogalam dogal ko ci ay jaamam képp kenn koo xam ne ci ñun bis bi nga war a dund bis bi nga war a dee li nga war a doon li nga war a tekk ci sa dund li nga war a am li nga war a ñàkk lépp yàlla mi ngi koy dogal ci bisu laylatul xadar waaye gannaaw bi mu ko dogalee ci bisu laylatul xadar tey ci bisu tam la koy confirmer am na ci dogal yoo xam ne tey lay signé yii moom c'est confirmé du ko laal am na ci dogal yoo xam ne tey la koy soppi ci bis bu tedd bii nga xam ne mooy bisu tam kon yaakaar naa ne bis boobu boo ko génnee ci diina ak lislaam génne nga lu bari doole génne nga lu bari taxawaay génne nga lu bari cër ci diine ak lislaam bi nga xam ne tey ñu ñu topp Muhammad Rasulullah ci moom la ñu ba tax na ñoo ngi ñaan réew mi jàmm di jaare ci lépp luy yiw di jaare ci lépp luy banneex ci lépp luy tiyaaba ci lépp luy lu baax ak loo xam ne njariñ la war a jariñub réew yàlla na yàlla jaaree ci tam xaritu 2022 bii defal ñu ci lu fooxi suñu jot ci barke Moustapha sallallahu alayhi wa sallam waaye ci barke mag ñu baax ñi ci réew mi mbokk yi balaa maa dalal suma gan yi nga xam ne mag ñoo ma bokk plateau bi toog ci émission bi dama bëgg ñu dem régie rek ñu seetaan benn élément boo xam ne tey fii ci réewu Sénégal ci ñun sénégalais yi ni ñuy dundee tam xarit sunu animatrice bu mag sunu rakk sunu doom sunu xarit Khadija Patra wàccoon na sur le terrain dem seeti la reine du mbalax Mbathio Ndiaye ñu ànd ñoom ñaar wàcc sur le terrain tabbi ci marché bi daal di dund tam xarit bi ni ko sénégalais dundee mbokk yi nañ dem seetaan élément bi te dellu si waat bonsoir mbokku téléspectateurs de la 2STV yi ngi leen di nuyu partout où que vous soyez dans le monde di suivre li nga xamante ni mooy la première chaîne de télé privée du Sénégal ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen dalal euh, encore une fois ci seen euh, émission spéciale Tamxarit ni ñu koy defee nag chaque année ah saa su nekk rek dañuy dem bis bi bu jotee ah wala tabaskeeg lu ni mel dañuy dem seeti ay ndaanaan ñu xool nan la ñuy toggee seen cere nan la ñuy bombee seen cere alors ñu ngi fii nag euh, Liberté 6 ma leen waxagum nag kan lañ kan lañ seet si tey rek ñu découvrir ndoo ko ensemble ñu dem bu baaxee maaleykum salaam Khadija. Badio. noo def bébé. Koundou mm, Ba. yaa ngi si jàmm. yaa ngi si jàmm naka affaire yi. ñu ngi nii ñu ngi si jàmm nii nga. ah danga maa seet si tey. ah li nga def baax na ci bisu tamxarit bi. <laughs> tuddee naa la ko. alors surprise baa ngi nii ni ma leen ko waxee sànq ci suuf ndaanaan lañ dalal tey ndaanaan lañ seet si ah jigéen ju am jom macha allah fas yéene xool rek nan lay passé journée tamxaritam ndax cere ji mën na ko boobu wala mënu koo boobu mi ngi noonu. waaw Khadija nuyu naa ñëpp di nuyu waa 2STV surtout téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan partout dans le monde télévision leader bi 2STV di nuyu suñu papa di nuyu suñu yaay yëpp nga xam ne ñu ngi seetaan di wax ne tere tam xarit. ngeen ñëw seet si ba kon faaw ma wax leen ne tey ni may toggee sama jara bi du yomb. waaw mi ngi noonu dégg naa nag da koo mën tey nag la ñuy am confirmation bi. Saalum Saalum laa nag. Saalum Saalum bi la waaw Aïcha mi ngi noonu Aïcha duñ def lu dul euh, daw gaaw marché ah parce que ku ne xam na ni tam xarit dañ war a teel a reer waaw teel a tàkk reer bi Aïcha. kon xaaral ma jël sama saag ñu dem jël sa saag rek ñu dem. xale pare naa de. waaw li ma def mbaa baax na. Ah, ci marché rek poti jeeg. dafa doy waar daal liñ naan dafa too much. waaw nañ dem. ndax mu xam sa njëg. rajo ko bouleversé ko mani beese ko ndax mu xam bu ko may jee sa feeling dalay teral juste madame nee na da la bëgg yaay yor feeling sa feeling dalay teral loolu neex na doom de Basiru kan sama waa ji kay lalli ko su ma fayee suma lamp ngeen di ko taal su ma génnee sama kër ngeen woo wi ma soo xamoon ni ma mel nin ma taamoo nin ma seetloo ak jàmm ji ci man ak yar ji ci man kay ma jox la suma teraanga àdduna duute cappe duute cappe duute cappe asalaamaaleykum sëñ bi na nga def yàpp nag laa bëggoon kilo ñaata la doo ñu wàññil 5 kilo laa bëgg. bul verse ko baaje ko mu xam sa njëg bul verse ko mani beese ko ndax mu xam sa njëg lëmbal di yëngal ku koy dëkk bu ko may jee tëgul kenn du ko bomb nag ma fayee suma ngeen di ko taal ma génnee sama kër ngeen woo wi ma soo xamoon ni ma mel nin ma taamoo nin ma seetloo ak jàmm ji ci man ak yar ji ci man kay ma jox la suma teraanga àdduna tuute ca c'est quoi lii lu mu doon sonal ngeen ma lool ne soo xamoon ni ma mel nin ma taamoo ak nin ma wóor ah, def say dugub yu ñëw nag soo euh, nga def waa Sénico lu tax ma taamu mooy seen produit dafa seen rek lii mayonnaise kaddi bi la ku ne xam na ne cholestérol amu ko lii thé fléchable boo lekkee par moom ngay digérer ah, lii moom xam nga ne moo mën ci cin te comme cere la ñuy togg cere tam xarit Sénico rek moo ñu ci doy moom lañ àndal suñu sponsor leader lii mooy vinaigre bi ku ne xam ne tam vinaigre kat yi boo ko utiliser day tax sa yax yi di gën a dëgër waaw lii mooy beurre bi beurre bi nga xam ne moom la ñu war a bombee cere bi léegi ci kanam maa ngi ñëw tamit ak diwlin bi diwlin bi raflé lépp. waaw soxla looy soxla rek am na ko dañ euh, mooy sponsor bu baax bi daal képp jigéen bu nga xam ne tey yaa ngi ci tam xarit bi wala bu subaa boo waree def après tam xarit conseil naa la man Sénégal ko jëfe di dugg ci sonn ah, pour yàqal seen waa kër man de bi may ñëw xam nga defoon saag bi nii dama ko def nii. man taloo yi bi daal marché bi dafa ci mënti xam daal métti na. mais comme ñu ngi ànd ak suñu sponsor Sénico lii huile baa ngi nii huile kadi bi. may wax jigéen ñi rek ñu gën a góorgóorlu parce que ku ne xam na ne xale góor war nañu dellu dépense ndax marché bi ñu jógee métti man instant bi damay miir xamatuma sax ma nekk sama mbokk góor yi dama bëgg ngeen ku doon joxe 5000 del joxe 10 000 ku doon joxe 10 000 marché bi métti na de xale jigéen yaa ngi góorgóorlu te bëgg nañu sëy bëgg nañu góorgóorlu bëgg nañu taaj ba mu baax kon nag yokk leen dépense bi ndax marché bi ma gis dafa métti dëkk ba mati ba mu set nan leen bomba cere ji cere bu amul suuf jaxajamul loo ko bool leen mu dem yow laaj ko ndax mu xam sa njëg raje ko bul verse ko mani beese ko ndax mu xam sa njëg lëmbal bi leen di yëngal ku koy tëkk bu ko mbay jey tëggul kenn du ko bomb nag feeling am mu yor sa feeling dalay tëddee suma lamp ngeen di ko taal su ma génnee sama kër ngeen woo wi ma soo xamoon ni ma mel nin ma taamoo nin ma seetloo ak jàmm ji ci man ak yar gi ci man kay ma jox la suma teraanga àdduna tuute ca quoi lii lu mu doon sonal ngeen ma lool nelawatuma soo xamoon ni ma mel nit ma xaamoo nit ma wóoloo ma leen ko waxee woon sànq ñu ngi nii jóge marché ah étali suñuy ndugg sànq nee naa leen dañu dalal ngan dañu dalal ndaanaan day baax bis yu mel nii ñuy dem di seet seeti suñu suñu mbokku artistes yi xool nan la ñuy waajalee seen bis parce que ñëpp dañuy laajte mëne nañ togg bi mëne wuñ ko wooyu lañ mëne wala lan lañ mëne ñu ngi nii jóge jóge marché Castor alors Mbathio xam naa sonn nga torop nag gis naa la nga dang dangi fu dee nga dugg fa waa macha allah waaw gis nga waaw bés bee ko laaj waaw nga nga présenté ñu rek nag nag sa sa ndugg bu riche waaw ndugg bi waa lii ginaar la mhm. moom dañu jënd ay ginaar mhm. lii moom ku nga xam ne yàpp tabaski la dafay baax nga mhm. baaxantal ci moo tax dañ ci dencoon quelque lu nga xam ne war nañ ko togg ci tamxarit bi ak yàpp nag bi ñu jënd sànq lii ay ginaar la li nag mooy mhm. suñu produit comme Senico ni mu ñu accompagner rek. Mhm. bu ñu lekkee suñu tere pare meew lañ ciy def. léegi léegi dañuy ñoo defar chai mais chai bi dañ ci def naana ak. Euh, teefile chat bi. Mhm. ak diwlin bi ñu war accompagner. ak beurre bi ñu ko war a kiyee. bombé ak bouillon kadi bi lépp ngi lii daal suñu sponsor leader bi Senico waaw ak suñu ndugg bu riche. macha allah. ñoom ñu accompagner ñu waaw li may wax rek seni ko ku ko laal doo doo laal doo feneen mhm. waaw parce que dafa matale lépp lépp lu jigéen di soxla ci biir waañ daf la koy jox ba mu mat moo xam diwlin bi la moo xam vinaigre bi la ah moo xam épices la ba ci ñoom ñoomi seen yi nga xamante ni tee bi nga xamante ni waaw tee flécha mhm. day baax bi ci mel nii boo reeree ba pare rek def sa chaay digal dafay digéré waaw mi ngi noonu dafay digéré xam naa dañuy simeeku rek ñëw jublu ci waañ bi waaw incha allah loolu mënul ñàkk ayca yaa ci des daal bu <laughs> baaxee rek ñu ma fayee suma lamp ngeen di ko taal su ma génnee sama kër ngeen woo wi ma soo xamoon ni ma mel nin ma taamoo nin ma seetloo ak jàmm ji ci man ak yar gi ci man kay ma jox la suma teraanga àdduna tuute ca c'est quoi lii lu mu doon ngeen ma lool nelawatuma soo xamoon ni ma mel nin ma taamoo ak nin ma wóoloo ak ni ma ko mbalaxee ak nin ko lëmbalee man ni ma mel kuy fëgg mooy chéri soxna mbay kan sama waa lamp ngeen di ko taal su ma génnee sama kër ngeen woo wi ma soo xamoon ni ma mel nin ma taamoo nin ma seetloo ak jàmm ji ci man ak yar ji ci man kay ma jox la suma teraanga àdduna tuute ca nañ ba pare ne euh, rusi nañ ba mu dog ñu def suñu yàpp xar def suñu yàpp nag def suñu lujum yëpp léegi ñulug nañu léegi kon dañu wax à tout à l'heure sur la 2STV ñoo ngi ñëwaat daal di bombu cere ji <laughs> mënul ñàkk na ñëpp xaar <laughs> tubaarkàlla kooku c'est la reine du mbalax ajaratu mu baax mi waaye mbokk yi balaa maa ñëw ci Mbathio Ndiaye lim cere parce que man Mbathio nag bett na ma en réalité Mbathio bett na ma man am naa mbetteel mu rëy ci Mbathio ndax jàppoon naa ne Mbathio mënta lii waaw man jàppoon naa ne Mbathio mënul lii waaye ndokk yàlla nag ba nga xam ne tubaarkàlla sagal na ma ndax kii sama xarita kii sama jigéen a waaw yow bu lay dégestive yi woon invité la na la tey yow la ñuy passé tam xarit nga war a ndugg jaawale légumes yi baa war noo toggal cere toggal nu mboroxe dana am gàcce goo xam ne fii ma toog du ma xam fu ko waaye ndokk yàlla ku gis ni nga toggee cere bi fi nga jaar ak suma rakk ji Khadija Patra bi ngeen dooree ci départ sa buntu kër ba ni ngeen jeggee ci marché bi ni ngeen ko nduggee ba ni ngeen ko sóoree ba ni ngeen ko ñu ñulugee ba ni ngeen teyee cere ji ni ngeen ko bombee ah tubaarkàlla nag mbaajo am nga ndam waaye loolu dama ci yaatal waaye balaa boobu ah tey dama am gan gu rëy tey mbokk yi mbokk yi tey suma plateau bi ku ne xam na ne Sali Babel mooy n ci sama ndeyjoor naa si mooy ne ci suma càmmoñ waaye tey nag sama baay ki ki ki nga xam ne moom a ngénte woon ca jëppal keroog ba ñu may uuf imaam bi du tudd ñu tudd ci sama nopp bii naan doom gi tuddee nañ ko Omar Gueye Kassé keroog ci bis boobu kii moo lee woon chaise yi muy suma baay di suma xarit di suma xaritu baay yàgg ak suma baay lool démb tey soog a ñëw mbokkum yaay Lamine Ndaw transitaire bu mag bi mbokkum yaay Lamine Ndaw transitaire bu mag bi chéri Soukayna yàlla yàlla guddal fanam te wéral ay cëram sama baay jooju alaaja am di mi ñëw ne mën naa la laay doom mon père euh, de valeur di siyaar ñëpp déwén na ti baal naa la. yàlla nga dund. yàlla yàlla sama yéene ci yow mooy nga dund ba ma yóbbu la màkk. amiin waay waaw ah, sama yéene ci yow mooy nga dund ba ma jox la bee màkk na la papa nga ne ma naa maa la tey da ngay dem barke Serigne Bamba. sama yaram a ngi daw de. waaw sama yaram a ngi daw. yaa ko mais tey bi ma toogee si plateau bi ba léegi dama am chair de poule. nga ne. maa la loolu dama am chair de poule. lu waral loolu. ndax discours bi mu fi def léegi nii si aaya tamxarit bi. waaw. non sama xaalis yàquwul. Ah, jàng nga. afa min xaazaal xadisin taajabun. nga ni. bamtu ko awar. afa min xaazaal xadisin taajabun. yàllaa ko wax ci alxuraan. dee leen nettali. histoire yi nga xam ne ak xew-xew yi nga xam ne amoon na ci bisu taajabun. ay histoire yu daja la ay yonent yu daje. surtout yonent bi Ousseynou am lu mu ci def saxaaba yi am lu mu ci def mu nekk ay taarix. yàlla wàcce aaya na baa nettali na leen ko. baa leeral nañ leen li nga xam ne mooy xew-xew yu daje ci bisu taajaboon baatu olof moo yàq baat bi tuddee ko taajaboon du taajaboon taajaboon taajaboon mais ñun nag ci baatu wolof ñooy wax taajaboon wala di wax wax di wax lu saf waaye taajaboon baatu alxuraan la baatu arab la yàlla ko indi ok am di fañ juddoo ci Massa Kastoor dëgg la ay ñu jur mhm. Babacar Sall lay sunu baay Ibadou la ci association des Ibadou du Sénégal la bokk xam nga ko. Ibou Meng moom jur mooy sunu baay Ibadou la ci association des Ibadou du Sénégal la bokk. mën na noo xumb mën na nooru mbax mën na ñuy wax luñ saf di sànneeku di falaale waaye nag ku jàng suñu diina lañ te ku ko xam lañu ndax fanu yaroo dañ ñoo yar ci diine ma bàyyi la papa nga yëkkati dëgg la waaw di nuyu ñëpp di nuyu mbokk Sénégal gi yëpp ñi may seetaan ñu am connexion ak ñi amul connexion ñëpp maa ngi leen di nuyu bis nekk fi nga toog maa ngi lay nuyu di nuyu sama ñaari doom yi nga xamante ne ñoom wax dëgg nañ yàlla ah bëggeen ngeen si plateau bi ma leen xëlee dama gis plateau bi di belli di tàq ku xam naas yi uh-huh. xam wax dëgg na yàlla personnalité ak yar gi ci moom tele jàpp ko lool nag uh-huh. tele jàpp ko lool kii nag moom sama xarit benn bakkan bii nga xamante ni moom wax dëgg na yàlla sa cuub da ngeen a yàgg yàgg Sali Babel du tey. Sali Babel su may wax ci moom du ma wax ci moom. fekk naa ci karam non non may kii Omar kii toog nii. fekk naa leen fu ne. lu mu sol moo ko moom. dëgg la. abul dara. Mm-hmm. kii toog nii te lu mu takk or la. dëgg xale bu am jom a ngi nii toog. Mm-hmm. kii toog nii xale bu am jom a ngi nii. Mm-hmm. jëkkëram bëgg ko lool. mu bëgg jëkkëram lool. dëgg la ma fekkee. te xam si lu bëri. dama ci def code. ba ci kanam. après émission bi fekk ñu ngi gën a xuus may ñëw si ñoom. waaw di nuyu nag mbokk téléspectateurs yi nekk 2S yëpp maa la ñuy nuyu. naa leen namoon naa leen di nuyu Mbaye Fall. sunu baay sunu papa. nit ku baax. borom France borom Bordeaux. borom Bordeaux maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. Mhm. di nuyu Nafi Thiam. dëgg la maa ngi koy nuyu bu baax baax di nuyu Meme caam mhm. man nag noonu laay baase dëgg la bàyyi leen ñoom ñu dawal. dëgg la ba ci kanam. ñu continuer. waaw ñëw loolu am na solo jàppal nag am nga toog nga xale yi am jom. dëgg la xale yi am maanaa. Mm-hmm. boolewul dara ak wax. dëgg la ñii bu leen xamee du tay de. dëgg la deuxième daal xam naa ni daal Omaro daal sa plateau bii daal. Mm-hmm. yàlla si daayal def ndox mu sedd. amin amin amin waaye. xale yii. amin barke borom Tuubaa. xale yii. waaw ute naa xale yi koobay fi daan jaar. <laughs> commencé naa sànni xeer yaboon yaboon nañ ma nañ ma sax yaa ngi dégg xale yu koobe fi jaar. ay waay ay abdi. minti Omaro dafa am beneen style bu bees boo indi. <laughs> dëgg la te sa style sa sa sa style. ñii uh-huh. la moo tax ma jëli leen. xale yaa ngi nii. moo tax ma jëli leen mbakkel laa teg soyez bienvenue. mbakkel de laa teg ci ñii. waaw soyez bienvenue. waaw ah, mbakkel laa teg. xale yi seen sourire baax na waaw. yaru nañ. xadisa Baye Karim tamit dégg xadisa kii Pasara. moom mi nga xamante ni moom sama doom la. dëgg la sama xarit la. Uh-huh. sama lépp la. bilaay ndeysaan. yaay baayam yaa ko jur. waaw yaa xale yi daal am nañ jom. dëgg la. jàppal ma ñi maintenir ma leen <laughs> teg o au xale yi duñ tardé <laughs> duñu soxo soxo. waaw dina ñëw heure ponctuel. dina eh. waxu tubaab. Eh. si lycée. Eh. tegale seen tànk. abu ñuy yére. lu ñu takk ñoo ko moom. Ah, jërëjëf xale yi am jom yaa ngi nii. demuñu di wër ci ci ci ci salon yi naan abal ma poudre bi fii abal ma golos bi fii. jërëjëf yéen am jom. dëgg doxal leen. jërëjëf jërëjëf kooku suma bàyyi la. alaaji am di mi ñëw bu baax mi maa ngi ko ñaanal yàlla guddal fanam ci wéral ay cëram moom bu ñëwee dafay gën a neex. Mhm. ndax suma papa la ku ne xam na ni am yaa sër la. am di da koy yëngal ba mu yëngu waaye am di ma yëgal la ne émission tey bii. Mhm. dañu ci am ñaari sponsor yu mag yu ñu accompagner. Mhm. kenn ki mooy KPay transfert d'argent bu mag bi nga xam ne moo xew ci jamono. kaapay mi nga xam ne tubarkaal la wàllu jokkalante ci wàllu xéewal di wàllu koppar fii ci réew Sénégal moo ci mën fuuf bi mu juddoo ak léegi yàggul waaye yaakaar naa ne ci lu gàtt lu matul weer dëbb na ndakaaru ak senegal li ko wër boobu ma kuru mbax ba ñaari sénégalais yoo romb ñu ngi koy téléchargé ak di ko waxtaane damaa gis keroog. waaw mu dugg si benn. Mhm. boutique. Mhm. war a fay. waaw yoruma. mën mhm. na ko yow. man beneen opérateur bi laa yor mu ne ma yow bu bees xamoo ko. ma ne ko ban mooy bu bees bi. waaw moom na kàpp xamoo xamoo ko xanaa sa doomu ndey chargé wul la ko. waaw ma ne ko man xaw ma loolu dimbali ma. Mhm. mu ne ma kàppee. waaw kàppee la tudd. moo xew ci jamono mooy kàppee. mais bitig yëpp moom la ñuy coow. moo xew ci jamono. taximaan yi am nañ ko. ñëpp ko am. foo dugg ci réew mi daal. tubarkalla macha allah fii ci Ndakaaru farsi fii ci Ndakaaru am nañu ko. ma bëgg nag àndi comme dama la namoon te dañu gëj a gisee. fu ma jaar teral la. waaw dama lay dama lay kàppe léegi fii nga toog juróomi junni eh. may la ko muy sab essence waaye bul waxagum dara yow nel pat rek may ma tuuti ma ñëw dama lay télécharger kàppe foofu nga toog waaw su ma bàyyi nga su ma xarit nga yàgg dëgg la mhm. dama lay télécharger kàppe foofu nga toog yónnee la juróomi junni muy sab essence naa def loolu yor naa fi cent mille yoo xam ne dama koy may doyoo ma ko dara moom ma ko lu suma alal ah. alali kàppe la te téléspectateur yaa ko moom te comme dama laa namoon juróom benn weer ngi nii gisuñu mhm. gisantewuñu mhm. te ngay suma bàyyi di suma kilifa dama lay kaapay juróomi junni ci kanam nag danaa la jox kàddu nga wax ma loo yëg ci kaapay waaye ba ci kanam bëgguma nga joxe lépp bali fetal yi bëgguma nga dóor lépp xaar tuuti dinaa la kàppay juróomi junni waaye yeneen soixante yi ci des insha allahu rabbi dinaa dugg fi nga xam ne mooy youtube maye fa vingt maa ngi suivre direct bi ci youtube la page 2 ngi nii may seetaan dinaa fi maye léegi benn vingt cinq mille ci YouTube bi dinaa dugg it ci Facebook bi mayewaat fa beneen vingt cinq mille danaa dugg it ca fa nga xam ne mooy tubarkalla macha allah ci suma TikTok TikTok Omaro mu Cheikh Béthio mu Serigne Saliou maye fa it beneen vingt cinq mille muy soixante quinze mille ak vingt cinq mille yi ma may am di muy cent mille kaapa yi transfert d'argent bu mag bi moo ko teralee réewuk Sénégal ci bis bi nga xam ne mooy bisu tam xarit mu nekk seen ndëwënal ndëwënal bi nag ci sunu bàyyi àndu mi ñoo lañ koy dooree jëm ci téléspectateurs yi nga xam ne ñenn ñi ñi ngi ci YouTube bi ñenn ñi ñi ngi ci Facebook bi ñenn ñi ñi ngi ci TikTok Omaro waaye ñenn ñi ñi ngi ci kër yi toog di seetaan waaye mbokk yi ma na leen bu leen fàtte ñi nga xam ne tey dañu nekk ay euh, euh, euh, ay fournisseur soxla li nga xam ne mooy capé ci seeni point de vente ci seen ci seeni point point point de point de cash point de cash yi nekk ci koñ yi nekk ci quartier yeeg ci région yeeg ci département yi képp koo xam ne da nga cee bëgg dangaa bëgg am capé ci sa koñ te yor sa point de cash ci koñ ba am ñeneen ña te amagoo capé te capé di sa àll réew ko am wooteel ci numéro téléphone boobu nga xam ne mooy 200 777 mooy numéro service commercial bi 2 double 0 def 2 def double 0 mu nekk 200 nga tegaat ci 777 kon day ñëw nekk 200 777 200 2 00 777 boo ci wootee foo mën a nekk ci Sénégal boo soxlaa point cash kaapa yi danañ la ko indil ba fa nga nekk livré la ko à domicile nga mën cee doxal wéyal la ci sa mission waaye mbokk yi ma yëgal leen ne Sénico toj na réew mi. Hmm? am ni mu ñëw. Ah. Sénico nag dama koy bàyyi jeg ci. waaw ñun góor ñi mën nañoo xuus ci kàppa yi waaye nag ah. Sénico comme mbiru togg la. Mhm. mbiru diwlin la. Mhm. mbiru saf-safal la. Mhm. ay yëf la yoo xam ne tubaarkàlla macha allah moo togg cere mbaacu bii. balaa ba ci dugg damay bàyyi nag jigéen ñi sotal ma Sénico songal ma ko waxal ma ko yu foora foora foora foora Babel Demba Thiam influenceuse bu mag bi. sama xarit bi loo dund doyul. yàlla yàlla guddal sa fan te wéral say cër bu baax a baax. sa toogaay wu rafet wi yàlla na yàgg. xam nga ni lii ëpp na ci émission. émission télé une heure nga tagalul ma lii. palmaanal ma lii. takkal ma lii ci or. ah yaa ma sagal Babel. influenceuse bu mag bi yaa ma yokk doole nag. yàlla yàlla guddal sa fan te wéral say cër. ma bàyyi la nga nuyoon ci soppee ci dugg directement nag ci Sénico. xoolal déclenché bi ni muy déclenché nuyoo bi seetaanal seetaanal ni muy déclenché nuyoo bi seetaanal rek Omar bisimilah. asalaamaaleykum àdduna asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum monde entier. ma koy def comme ni ma koy defee tout le temps. waaye tey damay gën a accélérer la cadence ndax nee naa hmm. leen tey tubaab fakkaala macha allah damay rukk laalo ba mu nooy. ma ah. ànd ci ak sama sponsor bu mag boobu <laughs> Sénico. waaw waaw. ci lu ma xam ci lu ma miin ci lu ma yàgg. la ci lu ma yàgg utiliser. balaa boobu nag tubaar fakal la macha allah damay nuyu monde entier. Mm-hmm. di nuyu samay ñaari waajur yi nga xam ne nu ma mën ñoom la lu ma mel moom la. alaaji papa Thiam sama baay bi maa ngi lay nuyul di la mm-hmm. jaajëfal ci bisu tam xarit bi mm-hmm. di la ñaanal gudd gi fan ak wér gi yaram sama baay boobu nga xam ne daf maa bëgg di ma sagoo di ma tiitaroo nee naa leen baay bu ma tee baay dañ koy wane di ko sagoo di ko tiitaroo waaye may ji mbëggu biram jigéen maam Fatim Penda Thiam du nuyu sama yaay ji caama waaj ñoxor mi ci daara mbaar mi ci caw leen du eh. nuyu monde entier du nuyu 2S du nuyu ñi ma bokkal plateau bi mm. di ñaan ci mi jàmm bisu tam xarit at mu bees mi suba la suñu premier janvier mm. ñu rukk laalo wax lu baax defante lu baax et décortiquer cere ji wax mm. niñ koy bombee wax lu waral cere ji boolu yàq yi li ko waral lépp day génn tey tey damay dëbb émission bi ba mu noonu seen baabe la toog bu leen ko fàtte influenceuse bu a mag bi borom un de vues par yaay waali madame Fall chéri moom moom maa ngi nii lu ma baax doy eh! Sénico nag tubaar fa kàlla macha allah dafa yëngal gësam laa ilaaha illallaah li Sénico def Sénico li mu def ci réew mi mooy consommer local ah, allahu akbar bion bi baax tubaar fa kàlla macha allah boo ko lekkee lii dar góor ñi du dal sa jëkkër du dal sa frère du dal sa papa du dal sa yaay kadi la lion bu baax bi. waaw huile bu baax bi nga xam ne amul cholestérol te heure bu la neex mën nga koo toggee lekkee ko jëfandikoo ko te amul benn ragal. Hmm. amul dara lu lay arrivé ci guddi gi mbaa ci bëccëg gi. tubaar hmm. fakàlla macha allah diwlinu koo moo baax muy huile kadi. Hmm. mayonnaise kadi. kenn du moom vinaigre kadi tuuti ngay def tubaar fakàlla macha allah réew mi yëngu mu farax toll. nga ne ma waaye nag te fële saa boo lekkee ba pare. loo mënti lekk ci Sénico utiliser ko boo paree teg ah fële saa nag kenn moom de. day normal. ataay dafa judduwaat Sénégal xale dañu yàqoon seen loxo ci baraada Flécha ko indiwaat dañ koy jaajëfal Sénico ki defar réewam ki bëgg réewam dëgg la société bi nga xam ne lépp luy wéral askan wi rek ci la ne mhm. AVC gëj nga koo dégg tension gëj nga koo dégg wépp gëj nga koo dégg xam nga lu ko waral mhm. jagoot jëpp ak géej jëpp li ñuy utiliser mooy kadi dëgg la lépp loo seen ci marché bi ñu def ci bion kadi rek mbëkkal mu jàll te xam ne mooy meilleur ci biir marché bi maa la wax muy mayonnaise di diwlin baar fa macha allah di vinaigre tubaar fa kàlla macha allah di flécha bi nag warga bi moom toj na dëkk bi warga bi moom toj na dëkk bi na baax rek nga yëngal suukar réew mi yëngu foofa toj du nuyu ñëpp nag monde entier tey tubaar fa kàlla macha dañuy mhm. la taajo booni Gambie mhm. taajo booni partout dans le monde Chine sax tey tubaar taal nañ mhm. ñu jàkkaarloog 2S leen di décortiquer li ñuy wax lan la ndax dañoo xew très bien taajo boon wëllay ba mu neex ba mu saf di nuyu waa Cambérène yëpp fa laa bëgg la ko. li ma bëgg a dégg tey mooy lu baax lu neex. baax baax ci réew mi. andi mignon. andi mignon. Ah. sama baay bi teraanga yi ci réew mi. jéggi ci réew mi di def lu baax bu ñu toggee cere ba mu neex rafetal ndab li rafetal bool bi. yenn yo yenn yóbbul njëkkee yenn yóbbul goro yenn yóbbul papa yenn yóbbu yaay. dëgg la suñu aada dafa ànd ak lu baax. dëgg la tam xarit bis bii yu baax yi ci juddu dafa bëri. dëgg la ndax tubaar fa kàlla macha allah suñu maam yi suñu maamaat ak suñu yaay yi. Mm-hmm. dañ daan bu ñu nee tamxarit yoon la bu ñu cere ji yoon la lépp jaadu na waaye yekk yi xam nga lu ko waral. Hmm. bëgg lu baax. ndeysaan bëgg lu rafet. ndeysaan dëgëral mbokk gi. Hmm. dëgëral ànd gi. Hmm. dëgëral dijjante gi diggante yi. ndax cere tubaab fa kaala macha allah damay dégg ñu naan bisu tamxarit ku suuru rek déwén ngay suur déwén mooy suba. suba la suñ premier janvier nañ ci bàyyi xel te première tibb bi nga njëkk a loo ci ñaan tubaar fa kàlla macha allah yàlla suñu borom defal la ko bisu tay bii ku ci jàpp ba sell jàkkaarloog suñu borom loo yottu jot ko ndax bis bi suñu yëf la lii ñoo ko moom bisu tam di ci ñaan jàmm di ci ñaan sutura di ci ñaan wér di ci ñaan wérle di ci ñaan nag suñu réew mi yàlla def ci jàmm sotti fi ndox mu sedd buyu ba fu waay jaar rek muy sa yoon nga àggal sa yoon ci jàmm Omaro mu sëriñ Saliou jërëjëf Babel di nuyu naa si laa bel sama rakk ji neex a bokkal plateau nuyu am di ñu ñoo di nuyu ñëpp di nuyu nag fa ma toggee cere ndax bu fàtte ni tey damaa laax sama cere ba mu ne muut ma doog a ñëw. mooy dëgg dama togg cere bomb bu ne muut ngéwél gi. golf sama kër goro faama saw. Mm-hmm. alaaji maajoor faal sama goro boobu yàlla xippee àjjana. amiin tey këram nga jéeg bu fa jéeg jéeg bu fa yendu rek tubaar fa kàlla macha allah bëgg nga faa fanaan. dëgg la fa laa waajee. Mm-hmm. def cere ju ne muut. bomb ba mu baax hmm. bàyyi sama goro ak samay wujju peccor goog hmm. samay njëkke leneen defar leen loolu am na solo ma dem tëgglee ñëwaat maa ngi ndeysaan loolu am na solo hmm. Babel tëj nga réew mi kooku mooy influenceuse bu mag bi Sali Babel mi nga xam ne tubaarkàll la wàllu sinap fii ci réewu Sénégal moo ko téye amee mooy influenceuse bu mag bi tubaarkàll macha allah lu mu sinabul baaxul lu mu waxul baaxul te bu ci waxee ba bàyyi ci ñaari fan day am un million de vues yàlla ak ko may dogale yàlla des koy nangu waaye sama rakk ji loo baax doyul ajaratu naa si mu baax mu sell mi sama rakk ji la charmante waaye sama rakk ji naa si la la la civilisation. augmente de de de de la valeur de la <laughs> femme. la tubaabe la tubaabe ajaratu naa si bu baax bi tubaarkàlla ah naa si mën naa la sama rakk ji. Amar Malang yaa am jom nga sañse. Ah. takk say or tagalu def deux couleurs. teg la say tàgg service boole patak organisé loo bëgg a dégg ma wax la ko. Omar wax amul waxal lu baax. naa si la nga bëgg dégg samay am ni mu ñoo wax la ko. am lu baax. <laughs> ma ne ko ciseau daggal daggal dem xottil mel ni yi li daggee piis rek feep pas coupe coupe feep am di ni nga ko waxee laa koy defee maa Omar maa ngi lay nuyu di la ziar mm-hmm. di la baax baalu àq ci tam xarit bi di nuyu euh, sama papa euh, Amdi. maa la loolu maa fi ziar ci tam bi di nuyu sama mag Sali Babel madame Fall yaay Waly di nuyu nos amis téléspectateurs fidèles de la 2STV di leen wax ne que restez connectés sur la première chaîne euh, privée du Sénégal tey Tamxarit la ñuy waxtaanee incha allah muy lu am njëriñ ci suñu réew suñu aada suñu cosaan ak suñu diine. di euh, wax ne que di fëlali li Sali wax ci seniko mm-hmm. macha allah. Sénico am am na solo mm-hmm. Omar. lu ngeen ko wax ci lu baax doyul waaw di ko mm. wax dee ba ci digg bi nag doog a ñëw ci kàppe waaye nag comme cere gi dañ ci dugg dugg ci mbaaco nañu attaqué Sénico ba ca kanam non Sénico meilleur Omar parce que tey jii ku xool cere mbaaco bi ni mu ni mu meilleuree ma mm. nga xam ne beurre Jadida lañ ko bombee dëgg la te Jadida Sénico moo ñu ko dooleel macha allah euh, xale yi ñi ngi ndekkee laklé mm-hmm. ñi ngi ndekkee meew alib muy mm-hmm. leen en poudre bi nga xamante ne nii macha allah instantané Mm-hmm. si ni ko daal meilleur Omar. Mm-hmm. di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu ci tamxarit bi di leen wax ne restez connectés incha allah tey ngeen di dégg sur la 2S. tey la de la 2STV lu ngeen bëgg a dégg. Mm-hmm. lu ngeen bëgg a dégg ma wax leen ko xale baa ngi nii toog le jeune communicateur du vingt-et-unième siècle maa doon mag ñi lan ngeen bëgg a dégg ma wax leen ko alaajaam li mu ñëw yow laay bàyyi nguur bi ci li mbaatu tere tey balaa maa jox soxna yi ñuy wax ci tere ji suivre ba mu jeex tàkk noo jàngatee ak noo gisee cere mbaatu waaw Omar balaa maa ñëw si cere Mbacke ji damaa bëgg ñëw si plateau bi encore. doo ko génn si plateau bi. continué am dafa sedd rek. maa la gis rek. man dama bëgg lu jongo ma. billaay ndeysaan man dama bëgg boo. billaay ndeysaan. j'aime la j'aime j'aime j'aime la adorité. ah bon. le la adorité les les les les visages. Mm-hmm. Mm-hmm. plateau bi tey dama bëgg. dëgg la pour bëgg Omaro mooy parce que. plateau bi boo xoolee ngéwéle mhm. ngéwéle mhm. tubaabe barke sëñ Bamba dañ ko mixé <laughs> kulun foofa toj sama xol moo toj ah! am di mu ñëw tey sama xol dafa toj <laughs> yow déggoo ma de dama ne la juuf ci nag bi dañuy dégg olof yi naan xajul ci cin li waaye tey lu juuf ci nag bi day xaj cin bi mais Babel mhm. am di laa bëgg mu présenté waat téléspectateur bu 2STV plateau tey plateau tey am di mu ñëw en direct sur la 2STV àddina ñi ngi lay seetaan. moom la bëgg balaa ñoo xuus. nga présenté téléspectateurs yi toogaay tay bi lan la joxe. loolu moom laa lay lan la joxe. ngéwéle. ngéwéle. tubaabe kulun. ambiance <laughs> ambiance wax lu baax. defante lu baax génn baax baax yi. ko xale yi di ko xool. xale yi di xool <laughs> yaa ngi dégg. dëgg la mais vraiment. damay sentir ni man vraiment je suis je je suis dans mon dans mais tey ñu laa boole ci suñu émission bi am di. mais lii def may réer ak fekk. Ah, am na maa ngi boole la ci ci le grand plateau non non le grand rendez-vous ngay ñëw lundi ak mercredi. lii lii lii lii lii c'est beau. Ah, dafa rafet daal bokk alaaj Ndiaye nag da ngay wax moom comme yow yow sa xarit la. moom yow la bëgg yaa ko mën a wax lu mu def. waaw da ngay waxtaan ak moom. ñu jox ñu plateau boo xam ne les samedi soir lay doon. Mm-hmm. bu ko defee ñu maintenir toogaay bii mm-hmm. maag yow ñaari góor ñaari jigéen. bu ko defee Sali Babel toog ak Naasi. maag yow ñu toog ñu jàkkaarloo bëggal réew mi. foofa taj loolu waxtaan ci ak El Hadj. loolu bu ñu amee samedi soir baax na bu ñu amee vendredi soir baax na. mais loolu jàpp ne c'est validé xoolal jour ñaar samedi wala vendredi. ban moo ci samedi wala vendredi. vendredi la après émission bi vendredi laa jàpp na mooy am espace parce que samedi. Mhm. damay ragal mu guddee parce que suñu jigéen. waaw bii su góone day def confrontation le samedi. Mhm. da koy def à partir de 22h te xam naa ay 1h du matin 2 lay jeexal. day guddi bi saba. nañ ñu jox vendredi bi ñu yëngal dëkk bi. léegi jeex na léegi mooy. waaw Mbathio Ndiaye. Mhm. lim li mu cere xale bay am jomb xale bi dafa riis. dafa riis. Mhm. j'aime bien façon de façon façon bu mu demee marché sax j'aime bien. Mhm. nga gis Khadija Patra ànd moom dar ko. ñu ànd dem di jënd légume bu Mbacco Ndiaye gis ngeen ko. Mhm. gis nga ay yomb yomb yomb yomb Mbacco Ndiaye. ñu <laughs> gis ngeen ay korotu yo korotu korotu Mbacco Ndiaye. ñu gis ngeen ay nawe Mbacco Ndiaye. la yéen gis ngeen ay ginaaru Mbaaco Njaay ba pare xale bi poulet du pays la def. très bien c'est très important. togg démb la togg togg mag. Mhm. poulet du pays. Mhm. moom la ñu liggéey. saaf ginaar yi ba mu ne muuc. Mhm. ñu ne déetawaay mu tëmbal ay ay ay ay ko ay yàpp xaram. seetaan ngeen ko. dëgg la xale bi laf cat. élément bi am na solo. man laf cat daal laay wax ci moom. na ko yàlla yàlla guddal sa fan Mbaaco. Euh, bàyyi leen comme affaire cere la te man maîtriser wu ma ko bu baax. bàyyi leen yéen. Mhm. yéen ñi jigéen ñi nga xamante ni yéen. Mhm. cere bi gis ngeen ko. loolu war naa neex wala warul neex mais léegi Sénégal léegi danoo commencé jël ay cere léegi di koy yàq. Mhm. waaw loolu tam bëgg naa ci waxtaan. waaw loolu loolu loolu la ñu war a waxtaanee am ji. waaw cere ji ñuy yàq foofu. balaa Sali Babel di ñëw ma naa naasi. waaw loolu c'est très important naasi. Euh, cere tey Kere Mbacu Ndiaye bi ni ñu ko seetaanee. Mhm. gis nañu ne sponsor bu mag bi moo ko ci accompagner. Mhm. di Sénico mu togg ko toggin wu jaar yoon. leeral ngeen téléspectateurs yi leeral ngeen ma baax baax yi Sénico di def ci wàllu diwlin kaddi ak li nga xam ne mooy bouillon kaddi bi ak vinaigre kaddi bi tubaarkàlla macha allah ak thé flécha thé flécha nga xam ne loo mën a lekk ci àddina mu teg ci sa dënd ne ci sa vestement na wàcc. ñetti guux laa la may ci warga bi te flacha mu wàcc nu masta wàccee ci àdduna ba génn ci sa moo wax la benn affaire si te te flacha mhm. que xamoon day dindi stress ah nga xam ko boo boo bëggee mu dindi sa stress nooy def mhm. infusion infusion nga koy def wax nga dëgg c'est très mhm. important infusion dëgg la c'est très important mooy bul baxal warga bi bàyyil ba ndox bi wax baax nga ne dajj paquet tout rekëpp tëj foofa toj. Mm-hmm. bàyyi cinq minutes mu diig. Mm-hmm. Mm-hmm. nga yéegal. loolu am na solo. di nga boo yéegalee. ak premier guux bi ngay guux. nga xool sa neer yi ak nuura ni ni muy bàyyee. day ubbeeku day ubbeeku. da ngay am ouverture normale. nga am ouverture. naa si. naam eh, cere léegi yàqu na. ñun bi ñuy nekk xale li ñu doon doon ay gone bi ñu juddoo ak léegi yàggul. waaye nag am na nañu ab fàttaliku. bi ñu gën a doon gone bu nu mu sànni lekk cere dañuy santin na cere la ñuy lekk. mais tey bu ñu lekk cere xamatuñu ndax laax la ñuy lekk xamatuñu ndax namme la ñuy lekk xamatuñu ndax petit pois la ñuy lekk xamatuñu ndax tufe la ñuy lekk xamatuñu sax ndax suppu kànja la ñuy lekk léeg-léeg nga gis ci ay cere yoo xam ne suppu kànja sax la gën a jege ak cere. déet waay lan moo waral jeeg ji jigéen ñi xale yi ñii sëy maire yi ak ku ko mën a togg rek ñu jékki-jékki rek. jël cere ji chargé ko ba mu fees lu ko waral modernisation la jamono moo dox ba yegg ci cere ji ñu war ko chargé wala boog lu xew c'est quoi le problème. Omar euh, man yaakaar naa ne cere mag ñu njëkk ña nee nañ lu tax ñu daan gudd fan ak ji dëgër mooy chaque guddi cere lañ daan reere hmm. mais day nekk cere bu naturel. parce que le mil ñëpp xam nañ nekk dafa am ay vitamines ay ferñeent yu baax yoo xamante ne dafa baax ci wérgu yaram donc cere mbaaco bi tey ku ko xool xam ne togg dañ ko togg bu naturel. togg bu simple mu ànd ak waa Sénico accompagner cereem mhm. bu ñu jëlee cere chargé ko rek mooy toggatuñu dañuy mënantu mhm. te togg dafa am mënantu dafa am mhm. euh, boo wàccee yoon bi rek liñ naan tout excès est nuisible boo wàccee yoon bi rek du du baaxati day gaañ maanaam cere baax baax yi mu daan def ci sa yaram ak ci sa organisme boo ko xësee chargé rek du du nekkati foofu musiba la lay mujjee indil moo tax tàmm nañ nee nañ euh, bu ñu tam xaritee ba pare rek hôpitaux yi dafay fees parce que nit yi dañuy am intoxication ah, dañuy boole lu ñu warul boole wala ñu am ay crise d'AVC parce que niinaay bu bëri bi mhm. duñ ko chargé nee nañ cere bi nañu jël euh, ñeex bi jël diwlin bu tëmb bi rek en sali bombee ko sa cere dafay neex mhm. te du la gaañ buñ ko chargé buñ ko chargé mais am na ñu koy bombee diw ñor waaw cere am na ñu koy bombeeg junior mais nee nañ la daal bu mu ëpp comme que tout excès invisible bu mu ëpp man am ni balaa ngaa ñëw na naturel rek naa si loolu am na solo li nga ci mhm. wax am na solo chargé bi nga xam ne ñu ngi koy chargé cere bi mais man dama comprendre tout affaire yi parce que bu ñu demee ba cere ñu ciy def ay tàndarma euh, ñu dem ba cere ñu ciy ñu ciy def ay fromage mm. dem ba cere ñu ciy def ay chocolat cere moom amee fromage pizza la cere moom bu demee ba am fromage. jàppal ne pizza la. mais chocolat. non dafa nekk dañ ci def chocolat eh, cere léegi dañ ci def chocolat. Babel man daal comprendre ma affaire yi nu mu demee jéeg ñi ñoo bëgg a jonge gu ëpp barey seen jëkkër yi wala lu xew. parce que matuñu mbuus te dañuy yàq mbuus. nga ne. matuñu mbuus te dañuy yàq mbuus. laa la la dëggati naa dëgg. jéeg dëgg lu waral lool. li ko waral mooy bëgg doon jéeg par force rek te jegeen nga. jege. jege den yi xale yu góor yi sol bëgg a doon jéggi turu jéeg rek ne damay jéegu dafa xew damay jéegu dafa xew waaye doon jéeg moo jafe tubaar fa kàll macha allah nag cere moom am na ñoo xam ne dañoo yàq cere ay fromage gi laa gis ñu ko koy def mhm. di def ay saucisson lu ñu romb def ci cere ji suukar ko mel ni kuy lekk am na sànq ci sinab bi cere bu ma romb mu am neem ii man affaire yi jaaxal na ma trop waaye eh. xale yu góor yi dafa ñu def boo ornee ba defar ba teg am na droit ñam ñaari kudd Ah. bu ñu paree ne la Cherif damay ndox mu wàcc ñu am fu ñu jaar lekk cere original. nga ne cere dañ koy togg ba mu neex. def carotte def supame def navet def def yomb tubaar fa kàll macha allah def pataas. Mm-hmm. def yàpp xar maa nga def yàpp nag. Mm-hmm. yeelu tabaski tubaar fa kàll macha allah suñu yaay yi dañu koy defaral ba mu baax. dëgg la. wékkal ñu ko muy wow jëm tam xarit. Mm-hmm. bu tam xarit jotee day rattaxal ban sa ñeex. nga saaf sa ginaar ba mu wow diigal ruus sa yàpp ba mu doog ak sa tamaate. ba mu baax nga ñulug def say lujuma gi nga ci war a def dëbb sa nokkas sotti mu àndandoog lujum yi ñor far nga togg cere ju naturel ju xees pecc heure bomb jotee nga tonni diw ga mhm. def sa haricot blanc tubaar fa kàlla macha allah boo bëggee diw diw ñor toqal sa diw ñor bomb ba mu neex mu ah. naturel nga bëtt meewi teg réew mi yëngu nga ne waaw man de gis naa ko togg tey cere cere cere tam xarit normalement dafa war a doon cere yoo. xamante ne ay kii la ko noonu de. mais gis naa tey ku togg cere boo xamante ne xam nga lu mu ci def. Ah. gerte la ci def. Eh. Eh, am di mignon. cere maafe la def cere maafe boo xam ne am tuuti ñebe ak ak jafe. Omaro la comprendre waaw kooku dana la macha allah. Mm-hmm. lu ñu tëgg rax ci borom. dëgg la. cere dafa dafa valoriser boppam. Mm-hmm. amuñu lekk bu gën a nekk valeur cere. amul amul. d'habitude suñu maam yeeg suñu baay yi moom mais suñu maam yi moo tax ñu daan dund moo tax ñu dëgër di dund ba doyal mm-hmm. mais bisu tam xarit cere tubaar fakkaa la macha allah naturel da nga koy togg mu neex naturel lépp yam nga ànd ci ak waa Kadi bu mm-hmm. dee diwlin ja moo ca gën waaw tubaar fakkaa la macha allah bu dee vinaigre ba moo ca gën ci raxas say ginaar ba mu set mm-hmm. bu dee bion ba moo ca gën nee naa leen togg dafa am toggantu am saucisson am na fu mu war a dem fromage gruyère am na fu mu war a dem tàndarma am na fu mu war a dem tubaar fakàlla macha allah ñu gën a yokk suñu valeur yi cere ji ñu ko yokkee mooy di ko togg ci yoon di ko togg ci discipline togg ci discipline nag mooy def ca la ca war a dem mm. sama rakk jigi du ta chimère jaw chimère séeri libaas mu koy nuyu au passage mm. tey li mu cere Cambérène amul mm. yaayu ngóone laay ak debbo borom jaw chimère Sénégal naaru aadama ak jaw Cambérène yëngu na tey mbana la teg ànd ceeg waa Kadi sama rakk jooju. Mm-hmm. tey la mu cere Cambérène amul te toggee ko noonu deful saucisson woon deful fromage gi dee te da koo bomb ba mu neex. Mm-hmm. togg cere ji ñeex mi mu ne dégg diw gën a dégg ca kaw. Mm-hmm. cere da ñeex ma xees pecc nga bomb ko sa cere mu xees pecc. mais loo togg mu ñuul kukk. li ma jàmm la. am na mi ñëw euh, Sali Babel wax na lu am solo. mais dama am lu ma jàngat ci ay waxam. am di baa xam nga ne kujje. moo yàq togg bi. wujje kujje. mooy wujje benn la. wolof mooy wax moo yàq togg bi. mooy ñaari jabar ñetti jabar ñeenti jabar te palaa yi mënta bari xam nga palaa yi moom ñun biñ juddoo ba nii nu toll palaa yi fi ne woon a fi ne dëgg la maa fi subu kànja dooma daa mboroxe yaa sa ceebu ganaar ceebu jën penda mbay mhm. yaa ngi dégg cukari cubule mhm. <laughs> ceebu joolaa xam nga tey bu fekkee ah, booy sa bopp xam nga tey bu fekkee palaa yi mënta weesu huit palaa bu baree ba bari dix palaa ca nga bëgg bu ko aawa toggee ñaaree togg ko ñettee togg ko ñeenteel togg ko ku ci gàtt ab xel tuuti dangay jàpp na war ngaa mën a transformer plan bi ngir war a seb cofeel mhm. da ngay jàpp ne war ngaa mën a transférer plan bi ngir yeesal sab jonge ak sab mbëggeel fekk na fa nga ko war a def du foofa mhm. jéeg ji li ñuy jaawale ak di ko fàtte mooy wane sa cofeel ak wane sa mbëggeel dafa am fu mu tàmbalee mais dafa am fu mu yam mais ñoom dañ koy bëgg di wane ci néeg bi bëgg koo wane ci togg mi bu ko wane ci sañse mi du noonu bu ko wane ci couloir bi bu ko wane ci mbedd mi bëgg ko wane fépp loo gis dafa am yoon nag loo gis dafa am fu muy tàmbalee ak fu muy yem am li ma gis daal muy sama vision mm-hmm. mooy depuis sëyu kujj yi bari ci réew mi jeey takk ñaari jabar ak ñetti jabar ku ne di wane sa bopp di def say façon say facette ci la togg mi soppeeku ba ci yaasa ginaar waxuma sax euh, Babel waxuma mm-hmm. sax cere mm-hmm. yaasa ginaar sax léegi mais da ngay gis ay yaasa yu rose ak ay yaasa yu jaune ak ay yaasa yu weer ak. te man ba jamonoy baax yaasa bu weex laa doon gis. nga am fulay bañ koy lekk yow kilifa gi ñu ko tegal. mais dafa ndànk wax la. yaasa yi nag day am ay yaasa yoo xamante ni boo si defee vinaigre kii boobu. kadi bi kaji bi. Mhm. ak domodaa yoo xamante ne xam nga domodaa dafa war di forox. Ah, day forox de tool ay boo ci defee vinaigre kadi bi doo toog. ma de vinaigre kadi bi laay bi. Mhm. dañu si toggal di nga cal geenu yàpp tëbëg si. ma toggal domodaa. Mhm. affaire bi xaw a mel ni lu ruubaat loo. <laughs> déggoo de. affaire benn lu ruubaarloo mu tëb. mais bu ma tibb tibbaate ba jël vinaigre bu toqalal ma ko ci kaw. waaw toj kaani gi. Mhm. am loolu ma doon siit. nga ñàkk tooy xepp. ma ñàkk tooy xepp. Mhm. wér si saa si. Mhm. yaa ngi dégg. yooyu ay togg la. yooyu ay togg la. mais dafa am ay togg yoo xamante ni par exemple nit jigéen ñi bu ñu koy togg ay ñoo yàqu kii ak ñoo yàq affaire bi. parce que jonge ko ëpp. waaw. bu yàggee day jaxasoo. day jaxasoo waaw day day indi ruubaat loo. loolu la tubaab bi daal crise épidémie. ah bon waaw parce que jéegu dafa xew. xale yi dafa ñu loolu mooy waral di naan tubaab tubaab daan crise épidémie. waaw. Ah. parce que dañuy bëgg bi ngay lekk ci ñoom wuuteeg ma ngay lekk ci seen wujju loolu amul boo demee kër mhm. ñaareel yi dañuy dañuy teg affaire ci yoon ah déedéet am di loolu duma dafa am kaay dañuy waxtaan dañuy waxtaan sama yoon nekku ñaareel yi ñoo am jom lañ dama ne am di déglu rek rek déglu rek rek boo ma rek dégg dëgg déglu rek yaa ngi ah. ñaareel yi xam nga ñaareel yi. am di loolu duma ko nangu kaa baa ngi bëgg a garaaw de. kaa bi dina garaaw xam dafa ndànk rek am di may ma rek ma ñëw même ma tuuti yow yaa may may. am di yow mi yaa may may boo takkee ñaareel rek xoolal boo takkee ñaareel rek. nga taxaw loolu waral na am na fi nga ay ay kay am di fi nga la baaxul. feebar boobu mu tudd ay kay majeur. am di kay kay <laughs> eh, ñëwal ñëwal am <laughs> dama ne dama ne yow tàqalikoo yow dañuy tàqalikoo léegi ne tix fi nga laal baaxul xam nga lu tax. ak a baax déglu rek may ma xam nga lu waral loolu. xam nga lu waral loolu. dama bëgg rek ma waral li nga wax noonu. saa si. lu yëngu lu ne lu ko yëngal dafa ma yëngal. yi aawa yaay. Hmm. moo tax moo tax da ngay war a ñëw am di am di taxawal da nga may may deux minutes nga mais dañuy tàqali ko. dañuy tàqali ko waaw léegi yow macha allah ku ci réew mi ak xale ndoom dawaa ñi maa leen jàggal bu waaw. aawa yu tubaab fakkaal macha allah mention hmm. yi ba ñu nekkee ci kër yi rek ñoo seen i jëkkër benn feebar génn. Eh. waaye bañ nee ñaareel tubaab fakkaal macha allah la feebar yëpp génn affiché wu taxaw. Mm. laaj ma lu ko affiché. lu ko sa jëkkër ba mu lay takk nee na la sama aawa kenn du moom ak a a togg ak a riis ak a set ak a civilisé bu ma defalee jus yi. Mm. bu ma defaree tànkee ndox sax may ma mu neex nga ne damay wujje damay defar ba mu baax. indi lu xóor indi musiba ci kër gi. sa jëkkër lu mu lekk du rees amee intoxication tubaab fakala macha allah sonn nekk ci ay problème aawo yi feebar yi génn eh. moom tubaab aawo yi seen jëkkër rek yoon hôpital du am sa dàgg aaw sa yoon tool aaw yaay aaw buur këram man sali baaba lu juma caam aali al jigéen tëgg bi ci mbaa waxuñu la yow yow eh, laa te xale doon dawaa ni ci réew mi may seen yaay yow leen di jàngal ni ñuy sëy aaw nga waaye Omaro arrêteel aaw laa waa sama yaay aaw la caaba waaj sama yaay ñu xor mi ci daara mbaam mi ci cëw leen aaw ah, dama bëgg a aaye dama ne xam nga lan may wax lu ma bëgg yow nga def déglu ma rek kii dafa war a réglé déglu rek déglu rek kii na arrêté da ngaa laal laalaake yow eh wuy ma da ngaa laal salibaabe ah, commencé da ngaa laal xolu Sénégal aawa yaay madame Ndiaye aawa yaay ma nuyu au passage mënuñu cere aawa yaay madame Ndiaye aawa yaay dëgg la aawa yaay ji aawa yi mënuñu cere aawa yaay aawa si dagg aawa soloonu tool aawa bi yaa kii bi dama ne ñaareel yi mën cere dama ne ñaareel yi mënuñu dara ñaari ba ñu yëgsee la dëkk bi commencé am problème feebar yi affiché wu taxaw dégg Sali a du metti ñaari li ñu la feebar di génn ngay dem nga am ko fii nii da ngay def ni da ngay def ni awa ah, yaay dañuy def ay problème yu ah, jeex waa léegi waa léegi eh, am dëgg la Babel mënuñu dara wax bu pare lañ mën def bu ne dar nga xam ne lépp dëgg waa léegi taxawal waa léegi taxawal Eh, Babel xam nga kii bu laalee aaway damay yëngal plateau. ba mu yëngu da nga koy def ba mu mokk d'accord naa. damay rukkuraale de Babel Babel bul yëngu Babel def nga noir laal naa cuub wane na tey la bisu tam xarit dañuy dugg ci as bu bees ñu waxante lu baax defante lu baax. Babel aaw sa dàgg aaw sa yoon toog. madame Ndiaye kon El Hadj Ndiaye aawo la. suñu yaay ji ñu jàngal baax jàngal eh, ñu sëy. dëgg la jàngal ñu def lu baax tooroodo bi aawo la. arrêtez tout suite. arrêtez de arrêté wu ñu. waaw léegi yow yow lan nga faible yow. waaw léegi même tuuti. yow taxawoon yow yow man sama yoon nekkul ci koyor. man sama yoon nekkul ci koyor man célibataire laa man ab célibataire laa buy taxawaalu rek di yaa ngi may dégg <laughs> man sama yoon newul ci aaw ak ñaareel bu mu <laughs> benn problème yaay waaye aaw maa ngi ni léegi am di eh, sa eh, doom bi sëy sëy bu rafet bi nga koy wax foo toll ma toog nii jong ma bay bëgg a dee di sagoo sama jëkkër di ko tiitaroo ah voilà dëgg ah, waaw d'accord mais ah, yow yow da ngaa mat da nga xam nga am na si am na si yenn jigéen yoo xamante ne mm-hmm. mat nañ aawoo mm-hmm. benn jigéen dina mat aawoo mat ñaareel mat ñetteel mat ñeenteel mataale sax nekkaale dëgg la dafa am ay jigéenam. léegi man foo ma foo ma taf. yow dama fu ma la taf laa bëgg nga xam ko ne la jigéen sëykat nga ku la am du takk jabar du takk ñaareel du takk aawo man kuy wujjeeg man kan may wujjeeg yow di kay tey waa déglu rek waaye xam nga lii problème bi. waaw xam nga problème bi fu mu nekk. dafa am yoo xamante dafa am aawo yoo xamante ni xoolal xoolal seen xel yi ñoo nëx. Eh. pour seen xel yi ibbeeku il faut nga takkal leen beneen jabar dama ne aaw yëpp laa fi toogal. waa léegi. léegi million waa léegi million million. fu ngeen léegi. léegi xam nga waxtaan la il faut il faut avoir quatre femmes deux femmes rek c'est bon une non. ah oui waxtaan la. Mhm. waxtaan waxtaat la. Mhm. bu nu ko taajee lay njariñ ku ne jël sa wàll jariñoo ko. aaw yi doon wax te nag sama rakk ji. aaw ah yi cere nañ de cerewuñu dara ajaratu naa si mu baax bi. ajaratu naa si mu baax bi. am na vision ci aawo yi am na vision ci ñaareel yi ma bëgg ko bàyyi kaddu gi nag moo xalaatam ñu déglu ko mbokk yi ab dégloo. ah, ah dégloo dégloo. Euh, atteel. Omar. ah déet atteel ma du ma atte. di nga àtte de. plateau bi dafa toog nii. tegale say tànk rek nag ay da ngay àtte da ngay wax waxal. waxal de waaw bàyyi ko mu wax bàyyi ko mu wax waaw sama rakk ji. yaay nga Niass. Mhm. yaay Waly. Mhm. awa yaay nga. ki mhm. ngay sëyal yow la bëgg. dalal nga ànd ak dara ñu waxtaanee ko Sali bu yëngu gis nga boo yëngoo xale dañ lay ñeme bu ko nangu. non man xa benn xale dugg sama gàdd man na dina aale xam nga lu tax damaa mat li ma doon oh. te bu ma nee déej tubaar fa kàlla macha allah xale gestu loo ma du yomb yow sama rakk nga mhm. xam nga ni man tubaar fa kàlla macha allah fu ma jëm alir lay dox waaye dafa laal sama xol bi mhm. ndax nag tubaar fa kàlla macha allah aawo yu kenn du ñoom ah Sali Sali boo mhm. toogee ne yow damay yëngal sama tànk ndax jeeg laa fu ma toll damay yëngal man mét nag aada yaay man fu ma toll dama yëngal man ak sama jëkkër rek ci sama kër danaan ma des fois day yeewu ne ma tey dama bëgg ñu yendu comme calme ma ne ko comme calme du am fu ma toll damay yëngal très bien déggal léegi naa si naa si. dama mujj nga gisee Omar dama mujjee jaaxle taxawaayu cere ji parce que tamit wax ji dafa mujjee tuuru ci awo yeeg ñaareel yi waaye jëmut woon foofa. man bokkuñu woon sans programme. sans programme mooy cere ji chargé mu doon maafe. mu jéem doon suppu doon doon lu lu ko waral lan moo indi cere ji. mel ni mel yi bëri mënantu rek Omar. ñëpp ci réew mi bu tabax rek jàlle dañuy feebar. lu waral loolu mënantu rek mënantu. nañu xool ñi maam yi daan toggee cere ñu topp ci. Sali moom aawa yaay la loolu nangul nañ la ko ki ngay sëyal yow la bëgg waaw loolu kenn weddilu la ko mais fi mu ne xam nga sali da nga taxaw taxawaaru kat jàngalal aawooy ah jàngal ñaare li après ñu avancé war ngaa mën loolu sëykat nga ci yow la ñuy xool aawooy ah dañuy xool ci yow ñaare li di xool ci yow tëdd leen yaaxaar naay rek ñu doxal ñaareel dañoo bëri fem de ñaareel li seen dégagement si biir cere ci biir kër gi bi ñu ko bombee yaa ngi dégg aawo mooy bombee cere xool te am nañ benn jikko boo xam ne bëgguma ko dañuy waddoo sër cere ji naan ni ba defaat nii. Ah. Oh, awo yooyu def loolu. xam nga nag <laughs> awo yi. xam nga nag Omar lii lépp yow la. <laughs> dañuy ribaar loolu dañuy def nii ma yëg rek ma wane sama dëkk dañuy def nii def nii bu ma départ sama kër dugal premier dëkk marché la woon ma yet boo demee ko <laughs> mais tey awo lay gis yow waaye ñaareel bi bomb cere di mi ñëw nii yow mii waa bi toog suñu wet position xoolal dañuy position ba mu dëxar glissé ko ba mu nooy mm. ñaareel li laax de ba mu cexe gi naan la dudd. <laughs> looloo moo tax ku ci yeewu AVC. waaw. ku ci yeewu AVC. lu ne lañ ciy def. xale yi waaye nga xam ci internet bi la dugg di jàng toog. lan ñaareel yeeg ñetteel yeeg ñeenteel ci. ku la wax loolu bi la ñuy dugg di jàng toog. Ah, loolu. moom gàcce la moom loolu moom. amul dëgg yàlla non gis naa ko am di. amul internet bi la ñuy dugg di jàng toog. am di defal naa ko saa bi ni la demee. amoon nañu jàngal am di il faut ñu daal ñu waxtaan. boo toogul baax fa kàlla li Sali wax nii c'est une réalité am na ci ñoo xam ne duñu toog bu te dugguñu Google. Mhm. man li ma la wax sama bët ma ko may kenn nit ma ko. foo ko gis. maa ko gis man. Sitel. waaw non non doo toog dana tudd ay tur. Sitel. gisul dara. am na mani maa ko gis damay wax diw. da ngay gis kii da ngay parce que yow mën nga weer nit. Omar mënu ma weer doomu waaw yow man fan weer ah yow bàyyi ma ma weer waaye. Omar man gisuma ñaareel. dinañ génn gaam. waaw te àdduna yëpp ñu ngi seetaan. ñu war a wax ci fi mu ne nii yàkkale boolu cere yi lu ko waral. moo tax yàkkale bool bi li nga nii. awe yi ñooy yëkkale yëkkale yu bon yi. waaw mais taxawaay ñooy jógal ay kubéer yoo xamante ne awe bu ñu lay yëkkal cere. même kubéer boo xamante ne xoolal kubéer bool bi day zone. couvercle rouge. ma ne ñooñu ñooy def loolu. ma ne kase sur kase. ma ne temps sur temps. aywa napp sur napp. Ah. loolu war nañu graissage liñ koy waxee. léegi yooyu. ñaar ñoo koy def tamit mais ma am lu ma laaj naasi. naasi. Mhm. li ma bëggoon a xam rek mooy ndax caada bi am ci tabaski am na ci tam xarit mhm. parce que tabaski da ngay nekk jëkkër lewatal saw xar. Mhm. sab jabar ak yaayam jël xar tas ko toj ko du ñu am ki tas ko dañu koy tas ba pare toj xar wa séddale parti yëpp bii ñu ne kër maam bii ñu ne kër nijaay bii ñu ne kër bàjjan bii bi bi bi bi yeelu njëkk bii wujju pertor ba bii magi jëkkër tas xar bi ba ba bu tabaski defee ñetti fan nga nammaat ndawal bëgg a yàpp saaf mhm. doo ko man ndax sab ndawal jeex na mhm. ndax caada jooju am ci tabaski te ñun ñu impliqué ko ndax bokkul ci tabaski tabaski moom notion de sacrifice la muy lawetal xar wi boo noppee pare ci la ko des ak cant la waaye lan moo waral tey caada jooju topp tey jigéen ñi ak seeni yaay ci tabaski ma gisaat ne mi ngi amaat nag allure bu day waar di ñëw ci wàllu tam xarit man tey dama génn sama bundu ko toog di relax di préparer timis bi maasi pour ma ñëw def plateau bi mhm. mais li ma romb ci ay bool mënu ma ko wàññi fan la boolu jëm. Omar euh, yàpp tabaski bu njëkk dañ ne bu njëkk buñ daan def bu ñu reyee dagg xar bi euh, séddale ko yóbbu fu ne loolu dañ ko daan def ndax am ñi nga xamante ne lu ñu am xar. ndax am na ñoo xamante ne ay néew di doole lañu. mën na am rey nañ mën na am ñu loolu yëpp dañ ko ci xool. dañ daan yóbbalante ay yàpp. ndawal dañ ko daan yóbbalante ci biir kër yi pour euh, ñi nga xamante ne amuñu moyen am xar. ñu mën a feetu comme ñëpp tamxarit tam gis nañ ñi ngi koy def amaana peut-être ci vision boobu lañ ci nekk ci vision euh, jàmm ak salaam parce que tey jii Omar koo amalul jàmm doo ko yàkkal te fii comme ne nañ Sénégal euh, réewu teraanga la moo tax xam naa yàkkale bi mais tey jii mën naa am am na fu ñu ko yóbbu foo xamante ne nii du yoon mm-hmm. nañ ko defee normalement ak discrétion teg ko ci euh, aada ak cosaan mu nekk loo xamante ne lu normal la lu simple loo xamante ne nii bienfaisance la je vais dire bu ñu ko defee noonu rek amaana xam naa ne gaañ du am mhm. wujje gu metti du am mhm. xiiroo du am ngaayoo du am ajaratu sali mu baax mi xam naa noonu la ko defee sali tibb na ay ay vingt 24 heures yu baax yu ne muut mhm. séddale aw ah yaay kon daal kon daal kon daal li ma bëgg comprendre mooy. Uh-huh. ba fu mu mujjee. Mm-hmm. séddale boobu dara lalu ko lu dul mbaax ak teraanga. baax ak teraanga moo ko laloon. loolu ah, amaana ah, leneen mën na cee waaw leneen mën na cee am fi mu ne nii. Mm-hmm. mën nañ ci am soppiku bu bees boo xamante ne am na ci mais man ci li ma xam. Mm-hmm. ñu ko daan def sama kër maam. mbaax la woon ak teraanga. moom lañ daan moom lañ daan fësal. naa si loolu am na solo tegal foofu solo xo mhm. bu ñu dëppee dinaa bàyyi sali ak am bi ñu indi ci ay leeral ñu yaatal waaye balaa boobu émission tey bi ku ne xam na ne su une grande plateau émission bu mag la spécial tam xarit la ñu wax génnee nañu ñaari live yu yoo xam ne mi ngi ci banlieue bi tubarkàlla macha allah ngir ñu xam nan la sénégalais yi dundee bis bi ak guddi gi nan dem Pikine ñu xool Aziz li mu ñu teralee ci mbaax tam nu dellusiwaat Aziz bismillah kooku géwél bu suluuse la Abdoul waaw en direct nag ak 2STV yi tey dañ koy rëkk ba mu nooy oto yaa ngi corne ñëpp ngi corne ndax xam ngeen ne Abdoul Aziz Ndiaye géwél bu suluuse tey taaje boon la woote taaje boon taaje boon Abdou Jàmbaar ñaari malayka la ci kaw laaju nga mu ne ko déedéet mu ne baay bi ndax am julli nga mu ne ko déedéet defoon nan ko daaw fekkee déwén taniin defoon nan ko daaw fekkee déwén décisif yi mu yëngal réew mi yëngal réew mi defar réew mi moom lan la xamee ey taajaboon taajaboon taajabooni naar farmatal buya buya buya buya bay tama taaja ndaat saay loolu nag mooy taaja bon ci biir Pikine syndicat nekk wallay Abdou Jàmbaar ñaari malayka la ci kaw la jóge léegi nag maa ngi seeti Serigne Khadim borom yàlla rek kay buur xool nan la taaje boone taaje ñaari malayka la ci kaw laa jóge daanu ci kaw suuf yaay ji ba xam julli nga mu ni ko déedéet mu ne baay bi ndax xam julli nga mu ni ko déedéet defoon nan ko daaw fekkee déwén eh salsalato taajaboon salsalato xam nga taajaboon salsalato xam nga taajaboon eh taajaboon taajaboon taajaboonina farmatar buya buya buya buya taajaboon taajaboonina farmatar buya buya buya buya taajaboon taajaboon taajaboon taajaboon taajaboon defoon nan ko daaw fekkee deewen defoon nan ko daaw fekkee deewen defoon nan ko daaw fekkee déwén defoon nan ko daaw fekkee déwén defoon nan ko daaw fekkee déwén 2S TV 2S 2S 2S 2S télé bi xew ci jamono lii la yàlla dogal 2S réew mi ñoo ko moom lii la yàlla dogal yaay Marème Ndiaye eh defoon nan ko daaw fekkee eh, déwén defoon nan ko daaw eh, fekkee eh, déwén eh Sadio Boye Sadio Boye Sadio Boye Sadio Boye Sadio Boye taajoon taajooboon taajooboon i nar sëriñ Xalima ngoog borom yàllaay buur taajooboon taajooboon taajooboon i nar buya buya buya buya defoon nan ko da fekkee déwén eh, e defoon nan ko da fekkee semata luyo e ɓuya ɓuya ɓuya ɗaray taja boon taja boon fiaja booni naar defoon nan ko daaw fekkee dewen defoon nan ko daaw fekkee dewen defoon nan ko daaw taja boon ɓaytama salaamaaleykum. ñu ngi nuyu ñëpp di leen jaajëfal bu baax. ñetti weer yi la gën a farataal waaye ci biir ñeenti weer yi faaw ma waxtaan ceeg sëñ Xaadim lan mooy tam xarit salaamaaleykum sëriñ Xaadim. waaleykum salaam wa rahmatullah Abdou Aziz euh, waa 2STV ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di jiital nuyoo bi euh, euh, directeur général 2STV El Hadj Ndiaye ak képp koo xam ne nekk na fi muy Bella ak Abdou Aziz euh, yow xalifa général képp koo xam ne communicateur la euh, di nuyu Sénégal ak monde entier bi yëpp. sëriñ bi bëgg naa nag nga ñaanal Bella mu am borom kër borom kees gaay maa ngi koy nuyu borom li ci àdduna sëriñ bi lan mooy tam xarit ndax dégg nañ ci at mi dafa am ñeenti weer yoo xam ne suñu borom da koo taamu bu xare masaana jot sax danaan julli di bu leen songu bu leen songee sax moral leen. waaw Abdou Aziz xam nga tamxarit euh, dafa nekk euh, bis boo xam ne bis bu am doole la surtout si diina islaam mu nekk bis boo xam ne xew-xew yu fi am bari na lool daanaka xew-xew yu bari yuy am si diina islaam bokk na ci koor ak tamxarit euh, mu nekk wax dëgg yàlla bis boo xam ne feetu julli di la bis bi ñuy renouveler lépp loo xam ne day dugg ci julli di seen seen tàmbali ak seen njeexutal at mi waaw euh, mu nekk nag euh, première bis bi bu weer bi teeroo rek moom tàmbali dugg nga si nit ñi nag ñoo jàpp ni mbir bi dëgg-dëgg mooy bisu tamxare bi mais première bis bi ba keroog juróom-ñeenteelu bis bi loolu lépp ngëneel la yoo xam ne da ci euh, da ci am digle borom bi subhaanahu la loolu lan lañ ci war a def ci ci ci ci fan yooyu nga xam ne moo dend ak bisu tamxarit waaw li ñu ci war a def moom mooy li nga xam ne moom la borom bi digle subhaanahu wa muy sàkku nit ak jinne lu ñu jaamu ma kon jaamu yàlla lañ si war def mais jaamu yàlla bi day ànd ak tamit ak sellal jëf ji sellal jëf ji bokk na ci benn euh, euh, baaloon tey àq euh, ñaar mooy seeti ay kilifa tey nit dina fi nekkoon ay waajuram amoon ay wëllëre yoo xam ne nekkoon na fi waajuram génn àdduna moom it na jug doxi mbokk dem seeti waajuru wëllë wëllëre waajuram yooyu seeti ko feebar seeti ku feebar mhm. seeti tamit laar bopp jirim yooyu yëpp tamit bokk bokk na ci mooy dafa gaañu papaam papaam dafa gaañu ndax kooku alalu alalu borom bi subhaanahu wa taala la aussi tamit taamu nañ tamit nit ci génne sarax surtout azaka nit ki mu génne si azaka ngir jox ko waaye ñàkk yi waay ñàkk kon yéen milliardaires yi profité leen ci weer yu ngeen génne asaka ndax ñi tëdd ci hôpital yi sonn bari nañu ñu jàppale leen waaw xam nga azaka moom borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ne onze billahi samillah min setan rajim xuz min amwaalim sadaqatun tutahhirum wa tuzakkim biha wa salla alayhim inna salaataka sakana lahum wallahu samiul alim mi ngi ko wax si sootu tawba euh, mu ne dee leen génnee si seen alali yi azaka mu ne dina leen laabal te dina leen sellal waaye tamit doo yem si joxe ko mu ne wa salla alayhim nga ñaanal ki nga koy jox kon ki nga koy jox alalam la mu ne inna salaataka sakana lahum ndax ñaanal bi nga leen di ñaanal dina dalal seen xel wallahu samiul alim yàlla kat ku dégg lépp la yàlla moom mooy ki ndax asaka ki nga koy jox alalam la da ko ko delloo waaw beneen biit it euh, xew-xew yi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy def tamit nit ñi ñu xaw ko éviter mooy li ñuy euh, def góor sol yëru yëre jigéen jigéen tamit sol yëre góor kon loolu euh, nit ñi nañ koy éviter ndax loolu moom moo xaraam kon damay faral di wax nii da ngay dégg nit ñi ñuy yox nii góor jigéen góor jigéen góor jigéen te loolu mooy góor jigéen bu fekkee ci diine ndax bu fekkee ñun liñ jàppee góor jigéen loolu loolu ci diine du góor jigéen góor jigéen nag moom mbind yàlla la mooy ku nguunu ngaana mooy nit koo xam dafa am euh, euh, matière góor ak matière jigéen kooku si miiraas sa day doon kooku mooy góor jigéen mais li xaraam mag mooy jigéen buy góorgóorlu ak góor buy jigéen jigéen jigéenu foofu la ñuy atte kon loolu tamit Sénégal cool cool yi bari na mais am na loo xam tooñ la ñu ñu teg ko mbir yëpp ci xam-xam bañ ko teg si ay dégg naa rek kon sëñ Xarim daal euh, maanaam jamono ji ñu toll nit war na ñaan dem ci ay armeel ñaanal nit war na ñaanal jirim nit war na génne asaka waaye ci baatu ñaan yooyu xanaa am na ay saar yoo xam ay baat yoo xam ni ci alxuraan nan la ñuy defee ba ñaan yàlla waaw euh, euh, euh, xam nga nit surtout ñi dem ndaxte nit bu fekkee ni dafa toog ci àdduna mu wax ni man sa waajur bu fi bu fi nekkee boo amee sa salaire si sa si sa wàllum ñaq nga jox ko si moo xam nga dundee ko moo xam nga jox ko euh, euh, njëgu téléphone baa lu mu mën a doon mais bu génnee àdduna boobu tamit daggul kon li nga koy jox nag li muy dundee mooy ay ñaan waa isi doa yan fawu maytan fi xubuur wa yan fawu xayya wa jubul ujur loolu sëñ Tuubaa mi ko wax si masaar ku jinaan ñaanal nit ku génn àdduna dina la jariñ waaye yow mi koy ñaanal it dalay jariñ ndax balu teng si lay doon mu waxaat ne wa alqabul afiyaa lil amwaati raddun ila ndax képp koo tëbboon bàmmeelam moo xam ku jëf lu baax la moo xam ku jëf lu bon boo ko laajee lan la gën a bëgg mun la delluwaat àdduna rek. la gën a bëgg. waaw sëñ Xaadim lan ngay ñaanal waa 2STV yi ci at mu bees bi xëy sëñ Xaadim borom yàlla rek kay buur di nit ku baax di ñaankatu yàlla. waaw 2S moom euh, wax dëgg yàlla bokk na si télé yi ñu gën a naw ndax 2S euh, euh, ki ko jiite rek ku am fulla la ku am fulla la nit man bokk na si man dama ko naw. muy El Hadj Ndiaye euh, doo ko dégg si dara dafa am fulla ba pare am jom ba pare mën a mën a créer ak ak soxnaam soxnaam si baax si ñu soxna Marème moom it ñu ngi koy ñaanal suñu borom gin ko sàmm digganteem ak boroom këram léegi it ñu bañ ko ak suñu kër gu bees gii ñu tuxu waa ñu bañ ñu cee catu non foofu cat du fi mën dara le fait yaa ngi fa cat du fi mën dara léegi beneen tam lu ëpp importance mooy nañ def attention si façon bi ñuy bi ñuy lekkee maanaam jël euh, euh, euh, cere joo xam ne danga nga boole bion yi diwlin beeg yëpp nga jaxase après jël meew sottiwaat si boo ko lekkee boo tëddee bu dee borom asma la baa borom borom borom njóobeen yi ak baa borom ñu amaan amaana ñu bëri tey da ngay gis ne bu buñ tëddee duñu yeewu su ko defee ñu ñu koy jiiñ ne yàlla at mu bees mi ku warta dem doo ko fekkee fekk na nit ki moo posé na boppam kon nañ xool li war a ànd loolu tamit nañ ci bàyyi xel ñu sensibiliser nit ki beneen bi nit ñi tamit ñu bañ a tëdd nelaw ñu koy jaamu yàlla di ko naafile. ah kon waroo reer rek tëdd. déedéet da nga war di jaamu yàlla. kon buur géwël a ngi lay dégg. waaw parce que ñu bëri sax dañ ñu ko doon naxee di ñu wax naan Faatamati Bintu da ngay tusgalu tusgalu bokk na si. waaw si si si si si. yi bind noonu di ko lekk. waaw xul na am wantum daaxirun loolu <laughs> dañ ko aadoo loo xam nit ñi dañ koy bind pour jiital ko pour lekk. loolu dañ ko aadoo. aada rek waaye du sunna. no non non loolu du sunna sunna bi daal lenn daal lenn mooy si li gën a wér mooy woor bi ndax yoon bi saa sam da daan woor leneen liñ si gis yëpp rek eh, day motti liggéey sa jaamu yàlla la moo xam boo xëyee nga julli ñaari rakka jàng hasbunallah wa ni'mal wakil 70 eh, boo paree ku mën a def ixlaas yi miilit nga def ko waaye tamit jaamu yàlla si fajar gi dañ doon wax naan da ngay xool Fatimati binti du nga gis loolu lépp dañoo bëggoon nit ñi ñuy jug di jaamu yàlla euh, ci waxtu boobu dañu ko doon naxee waaw beneen bi tamit euh, taajaboon nii euh, daawul amee comme comme nii nii ngeen def noonu la mooy seeti ay kilifa seeti nit ñi nga xam ne woon nañ ngeen jubóole leen waaw loolu it lu am solo la kon ñu ngi leen di ñaanal yéen ñëpp kon ñu tàllal loxo yi sëriñ xaadim borom yàlla rek kay buur nekk fii ci sandika di nekk ñaankatu yàlla nit ku baax di ziar bu baax soxna Ayda borom Guinée sëriñ xaadim ñaanalal àdduna ñaanal 2 yi waaw ñi ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne euh, moo téye kawam bi ba daanul suñu kaw téye suuf si ba màbbul tàggatal ñu jaww ji bañ koy nooyee di ko dundee comme ni mu ko soobee te kenn loru si euh, borom boobu may ñu fekkee nag ndax am na ñoo xam ne séentu nañ weer tam xarit te bis bi mi ngi leen fekk si suuf kon nag ñun nag mi ñu xam ne may nañu ñu fekkee yàlla na barkeel lépp loo xam ne def na ko def nañ ko si mu may ñu gudd fan wéral nag bépp cër boo xam ne nit ki am na jafe-jafe bépp aajo yàlla na ko borom bi saafara deuxième yàlla na ko yàlla def mu mu gën a raw télé yëpp ah, ba yéen seen émission yi ngeen def ak Bella ah yàlla na yàlla def mu nekk meilleure émission bi ñaanalal Bella nag moom borom kër Bella moom bu ñëwee dama koy teg si yoo xam ne soxna Ayda bu ko téyee si kattoon yàlla moom moom waaw loolu moom amul per bisimilah loolu am na solo jërëjëf jërëjëf sëñ Xaadim Ah, jërëjëf sëriñ bi ñu ngi lay sargal di la sant di la gërëm di la ñaanal jàmm ci taxawaay wu rafet wi nga xam ne am nga ko ci kàddu yu jub yu rafet yi nga xam ne ay kàddu yeeta la ak ay kàddu dénkaane jëme ko ci télévision bu mag bi nga xam ne mooy la 2STV la télévision autrement waaye mbokk yi ma sargal bu baax a baax sunu animateur boobu nga xam ne moo ñu fa teewaloon di Abdoul Aziz géwél bu silwise nit ku yàlla baax la Abdoul Aziz c'est un jeune communicateur nekk xale boo xam ne tubaarkàlla macha allah banlieue bu Sénégal mi ngi koy dëb ba mokk lépp lu waay xewle fii ci réew mi rawatina banlieue bu Sénégal bu Abdou Aziz teewul yaakaar naa ne doo wax balaa nga wax daa ñëw jomam moo ko may fullaam ak ko may faydaam ak ko may waaye gëm boppam moo ko may Abdou Aziz maa ngi lay ñaanal sa fan te wér say cër bu baax a baax seelament booba am na solo di la nuyu di nuyu waa Pikine gépp di la ñaanal jàmm waaye mbokk yi balaa maa ñëwaat tuuti ci reer itam xarit yeeg cere yeeg mbaax yeeg ngëneel yi dama bëgg doxantu tuuti dem ba London daal di nuyu suma xarit kooku mooy Shingli Chiki e, e, e, Shingili Chiki Shingili Chiki Shingili sunu xarit la ni ku yàlla baaxal la acteur la jouekat film bu mag la du jouer ci film nigérien yi nekk suñu soppe nekk gambien waaye bëgguñu rek ngir yàlla bàyyi ñu xel it te duñu suivre à travers la 2STV Chiki Shingili mi ngi foofee ca Londres waaye mi ngi ñu bàyyi xel à travers la 2STV di acteur bu mag boo xam ne tubarkàlla film yi gën a mag ci film nigérien yi yiy daw ci télévision yu mag yi tubarkalla acteur la ci mi ngi ci te mi ngi ci représenté Afrique soo jont à travers le monde rawatina nag bi mu nekkee Gambien te ku ne xam na ni doon Gambien mooy doon Sénégalais doon Sénégalais mooy doon Gambien ndax Sénégal ak Gambie benn bopp la te kenn mënu koo xar ñaar maa ngi ko nuyu bu baax acteur bu mag boobu borom Nigéria Chikki Chingli di ko ñaanal yàlla guddal fanam te wéral ay cëram bu baax a baax Chikki Chingli xam nga nag sama tur bi sama sama olof bi pour ma làq angale ni mu waree day xaw a métti ci man waaye li Shikili li mooy turam maa ngi ko ñaanal jàmmam yàgg du nuyu suma jigéen boobu nga xam ne mooy Niki borom Gambia Niki loo dund doyul yàlla yàlla guddal sa fan tuure si cër baax a baax moom moo nu présenté acteur bu mag boobu ñu ngi koy ñaanal moom i jàmmam yàgg waaye Babel dama bëgg ñu ñëw tuuti ci fi ñu nekkoon sànq ñu ngi newoon ci bool yi bool yi naa si nee na jàmm ak mbaax ak teraanga moo koy génne mais ce que bool yi tey yi règlement de génnewu ko non non Omar. booli tey règlement de compte génnewu ko ak mm. defante. non parce que sànq. Mm. li may nuyoo. Mm. ñuy wax ci baax baaxu tam xarit. boo ma dégloo ci li ma wax tuuti boo dellusiwaatee ak man. bool yi mag ñi dañ ko doon def pour rattaxal diggante yi. dëgg la yokkal baat bi tuuti baax mag ñi dañ daan def bool yi pour rattaxal diggante yi. defar diggante yi. rafetal ànd yi. ndax sànq dafa am loo wax ci tabaski loo xamante ne nii. suñu yaay yi dañ koy faral tàmmal ñu ko duñu ko sant ñu koy def ci suñu sëyukaay yi. Mm-hmm. parce que booy sëy ak nit yàlla boole la ak moom ngeen di sëy ci teraanga di sëy ci ngor ba tabaski jot sa jëkkër jënd la kuy mu mat. Mm-hmm. jox la jëndal yaayam jëndal ay jigéenam jëndal ñëpp waaye dafa rafet kuy moom sa jëkkër jënd nga gàddu tànk jox jigéenam mbaa nga jox yaayam. Mm-hmm. ndax ndawalu lu tabaski sax ci yoon ci li charia wax warta fanaan ci kër. ci bis bi lañ ko war a lekk saraxe ci mu jeex. tamxarit tas boobu ñu koy tas jëkke li wujj lii bàjjal non non loolu du bokk ci dañ na ndawal li nañ ko saraxe ah waaye ñun suñu yaay waaw kay ndawal li dañ na nañ ko saraxe mais ci suñu yaay yi rafetal gi ñuy rafetal ba mu yegg si ci tamxarit suñu bool yi mm. laa lay leeral xamal la ni mm-hmm. loolu dafa yàgg ci àddina mm. li yàgg ci àddina mooy rafetal ndabu xarit yi boo ko gisee damay tibbal sama xarit damay tibbal sama goro damay tibbal sama bàjjenu jëkkër damay tibbal sama njëkke damay tibbal sama papa man ñi sëy mm. taxal diggante yi rafetal diggante yi bu tamxarit jotee kër yëpp teg bana defar ba mu baax waajal ko préparer ko ndax mooy suñu fête. Mm-hmm. suba incha allahu rabbi buñ ci duggagul sax mooy suñu premier janvier. Mm-hmm. ñun ñu ngi doo ko dugg suñu at mu bees. très kon nag ci biir at moom ñuy jaamu yàlla di ci ñaan yàlla cere ji ñu koy togg suñu maam daan ko def ba ñun xale yi ñu ñëw fekki leen ci dafa rafet. li maam yi daan def ak yaay yi. Mm-hmm. tibb ndap yóbbul sa kër maam yóbbul sa kër bàjjan yóbbul sa kër umpaañ. dañuy rafetal di rataxal diggante loolu day wane ne àdduna ñun suñu culture lépp dafa war a dëgg dafa war a rafet. Mm. as góor day def lu baax as góor day def lu rafet famille dañ koy taxal rafetal ko diggante dañ koy rafetal baax baax yooyu dañu cee nàmpatal mm. mu nekk loo xamante ne nii bu ñu juddoo ba tey dañuy gis suñu maam di ko def suñuy bàjjen suñu papa suñu yaay moo tax bu ñu toggee ba mu neex mm. dañuy yàkkal goro yi rek yàkkal njëkke yi ndax yooyu yëpp ci la bokk day rattaxal diggante yi ndax nag sa doom jënd xar mu mag jox jabaram mu lekk ko ba mu set te joxu ci dara loolu rafetul de jekkul de mm-hmm. yaay bu ne yaay nga man am naa doom bëgg naa ëllëg sama goro di ma toppatoo yooyu yëpp dafa boole ci rataxal diggante yi très bien diggante yi dafa war a ratax c'est mm-hmm. yaakaar naa ne li nga ci indi ci ay leeral mm-hmm. leer na nañ ni man li ma doon bañ rek mooy ñu koy jëflante ngir règlement de compte non wala ñu koy jëflante ngir defante wala yóbbante ay wax tubarkàlla waaye comme nag mbaax ak rafetal ak teraanga ak boole diggante yi mu doon benn rek ko waaw je suis d'accord dañoo nekk ci dëkku teraanga dëkk boo xamante ne nii lu baax ak lu rafet rek moo fi am foofu tamit même tuuti dama sànni si doguma la yàlla bu la yàlla dog mais am na si aawa yoo xamante ñoom par exemple ñoom daanu ñoon def loolu bu ñu leen takkalee wujj seen gis seen wujj def loolu ñoom ñi def yow ànd naa ci ak tamit. waaw loolu loolu am na. waaw bu yooyu yëpp weesoo moom. ànd naa ak yow ci parce que am na ñoo xamante ni a te àdduna boo ci nekkee de rafetal ndax li ci sa ginnaaw xamoo kañ lay yëg sa kanam xam nga foofu Babel li ma la fay dogee rek mooy fàllo bu su jox réew mi càmmiñal ma rema kunta bàyyi mbéem mhm. Cheikh Fallou Mbacke moo xam mbaax mi mhm. mu màgg mu tedd mi doomi sëñ Bamba dafa wax ju am solo mhm. dafa ne am junni te xamoo ko ñàkkoon ko te xam koo gën am junni am junni am 5000 francs te yow xamoo njariñu 5000 francs bi nga ñàkkoon 5000 bi te xam njariñu 5000 bi yëpp gën mhm. ndax nee na boo ko ñàkkee xam njariñ li mhm. dana tax boo ko amee nga xam ni nga ko jariñoo dëgg la problème boobu moo am suñu diggante aawooy ak ñaareel yi la seen i jëkkër da leen bëgg leen gëm leen respecté leen seeg ñoom ci farata moom ñu ne ñoom duñ def lu baax ñu war ko engagé jël ci moom ay responsabilité doxal sëy bi mhm. duñu ko def léegi nag bàyyi ba sa jëkkër miir ci weneen xale wu coppati woo xam ne day toj ndong li xale boobu ñëw di def lu baax mu supp jaleñ cukkal li dal xale boobu ñëw def lu baax fonk njëkkër yi defanteeg moom fonk goro yi teg lépp ci yoon waaw waa ji li jax li ñagasoon ci digganteem ak ay mbokkam nga fexe ba rataxal ko mm-hmm. loolu tamit ma ciy gërëm ñaareel yi nga xamante ne nii ñu ngi ñëw ci kër yi defaraat kër yi ndax des fois nga xool kër goo xam ne aawa bi da koo yàq ba famille ba ku ne ut nga foo dem uti beneen sant dëgg la waaye xale bu góor bi tourné dajeeg ñaareel boo xam ne day boolewaat famille day defaraat kër def tabaski yi benn def 31 yi benn def tam xarit yi benn dëgg la loolu tamit li may doon doon aawo dama ciy hmm. gërëm ñaareel di ci nuyu sama mag ji Amina Laay mu Mamadou Lamine Laay. Mamadou Lamine Laay porte parole des Laayeen. kulli Laayeen sama baay boobu jabaram ñetteelam Amina Laay suñu baay bi suñu baay bi nga xam ne yaa ko choisir. Mm-hmm. ñetteelam Amina Laay sama mag ji man mooy sama référence ci moom laay xool. ndax ñetteel la boo xamante ne tubaar fakàlla macha allah référence la ci diine ji. référence la ci askan wi. Mm-hmm. yaayu jee Laay ak Imam mm-hmm. Bachir. baay Baye laay sama mag ji. maa ngi lay sant di la gërëm. ci sa sëyukaay man yaay sama référence ma ñëwee yow rek laa xool noo doxalee na boo juumoo nit bu ma ñibbee damay juum ndax dama laa bëgg waaye yaa ngi sëy di ko teg ci ko teg ci code di ko teg ci ask mm-hmm. moom xaalu korte xaaru tabax chaque jour day rak mana lay dégg mm-hmm. bu àjjuma jotee ku julli ji yoof boo dëppee ca saalam ngay maam li maamu mooy maamam loolu mooy yoon naa si Omar ba léegi ci loolu sax waaw fi waxtaan bi mm-hmm. toll ba léegi mooy euh, ci yàkkalante beeg def xam nga Sénégal ku ko xam-xam ne c'est un pays laïque mhm. maanaam quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans cinq pour cent de chrétiens mhm. dañuy faral di def aussi comme ni ko sama yaay ji baax di defee euh, bu ñuy tabaski mbaa ñuy korité mbaa tam xarit da daan invité ay copinam yoo xamante ne ay chrétienne lañu. Mhm. mu nekk une chose vice versa boo xamante ne ñooñu tam que ce soit Noël Pâques ak euh, yeneen ñum ci noonu feetu chrétiens yi ñoom tam dañu doon invité seen ay kër ba léegi ba léegi muy jëflante gu baax gi Omar. très maanaam ñuy lëkkalante lu baax teraanga ji jokkalante bu baax mhm. <laughs> mu ñu bàyyi ci xel bu baax aussi tamit ne que ba tey loolu ci même volet boobu la nekk ñu mhm. roy ci ba pare loolu yëpp day taxal diggante réew. Mm-hmm. ba ci cadre euh, diine. Mm-hmm. day taxal seen diggante. c'est très bien yàkkalante beeg demalante beeg ñëw bi loolu am na solo dugg ñu que ñoom boo mu bëri personnalité seen ngalax du bëri bruit. amul benn coow seen mbaam du bëri bruit waaye ñun si day bëri bëri am di kàppe yi transfert d'argent bu mag bi laa bëgg nag. ñu attaqué ko song ko. daj dëpp gi daj dëpp gi. daj dëpp gi. daj dëpp gi laa bëgg ñu song ko. kàppe bi dama ko téléchargé ma toll fii. Euh, tànn naa tànn naa benn nit ci YouTube bi. Mhm. mi ngi tudd Ndeye Yacine. Mhm. waaw tey ñetti jigéen laa jël ak benn góor. waaw ñetti jigéen jël naa benn jigéen ci YouTube bi jël benn jigéen ci Facebook direct bi. Mhm. jël benn jigéen ci fi nga xam ne mooy suma TikTok bi. suñu bëggee di leen jël. di leen di leen di leen di leen euh, di leen di leen woo par benn day jël temps. te it tubarkalla macha allah du fi xaj. moo waral dañuy tànn tur yi rek. après ñoom ñu lancé numéro yi ci li nga xam ne mooy compte yi ñu doon suivre mu YouTube bi TikTok bi ak fi nga xam ne mooy. Mhm. mooy mooy mooy mooy mooy tubaarkàlla mhm. euh, Facebook bi. Mhm. tànn nañu kenn ci li nga xam ne mooy YouTube bi mi ngi tudd Ndeye Yacine. Ndeye Yacine la ñu tànn ci YouTube bi. bi ñu demee ci fi nga xam ne mooy Facebook bi tànn nañ fa soxna si tudd may mun a may mun a géey loolu moo nekk ci compte am Facebook. danañ commentaire di wax lu baax tànn nañ ko war nañ ko may vingt cinq mille léegi incha allah rabbi balaa émission bi jeex dana jot na dugal numéro léegi ci li nga xam ne mooy Facebook bi ñu jot ci mhm. tànn nañ ci TikTok nga xam ne mooy TikTok Omaro mu Cheikh Béthio en direct ñu ci suivre émission bi li nga xam ne mooy euh, euh, euh, jigéen ji nga xam ne mooy Aïssatou Ba Aïssatou Ba mi ngi commentaire mhm. ci sama TikTok parce que maa ngi en direct nii j'ai plus de 7000 m yoo xam ne ñi nga may seetaan 7000 m yoo xam ne ñi ngi suivre di aimer di partager en direct ci TikTok bi maa ngi di jàkkaarloo ak ñoom danañ ci tànn kenn ci ñoom ku tudd Aïssatou Ba danañ ko may léegi 25000 incha allah mu nekk ñetti 25000 yoo xam ne tas nañ ko ci réseaux sociaux yi ak benn 25000 boo xam ne may nañ ko suñu bàyyi am di million ngir mu jënd ci essence paas dem ñibbi ndax tey moo taaral suñu jotaay bi moo neexal suñu suñu toogaay wi te it moo darajaal li nga xam ne mooy su suñu suñu émission bi ah. Sali Babel ma ñëw ci kàppay en attendant ko am di lu may waxati ci KPay la ñuy wax. Mm-hmm. KPay mooy mm-hmm. transfert d' argent bi leer. transfert d' argent bi wóor. KPay tubaar fa kàlla macha allah ba mu duggee ci mm-hmm. réew mi tubaar fa kàlla allah la jeeg jépp ak jagamaar jeeg jànq bi papa ak yaayu mag ak rakk. nijaay ak tonton ñëpp am jàmm. sama nijaay ji alaaji papa Thiam barki démb bi ma koy teral ma nga kër Ndiob ba maa ngi koy nuyu au passage. dama ko woo ne ko nijaay nu may def ak yow mu ne ma transfert d'argent bi xew. Mm. bi wóor. Mm. kaape yi nga xam ne lépp loo ci dugal tubaar fa kàlla macha allah nee naa la doo ko réccu. ndax kenn du la sotti te kenn du la yuy. Mm-hmm. te nag ma xamal la ñaari baat ci kaape mm-hmm. boo yónnee doo fay dara. Mm-hmm. boo jëli xaalis doo fay dara. Ah? boo ci bàyyee sa xaalis sa nga koy boo yónnee am di mu ñëw. boo ma bëggee teral ci kaape. transfert d'argent entre kaape kaape xolal buy ma am di transfert d'argent entre KP KP. Hmm. amul fay dërëm. dëgg la sa dërëm du jóg. sa dërëm du jóg zéro ah. frais. zéro frais. waaw ah, zéro frais. su ma la bëggee teral nii may la juróomi junni. di xalaat lu ma ko war a fayee jaru ko jaru jox xale paas jaru dugal fenn. Hmm. direct KP nga jot ko sur le sang. Ah, waaw normal amul ay. frais ay non non xam nga ci lu am frais pour sant waaw boo demee tubaar fakal la macha allah EDK di jënd. Hmm. ci kii bi jolof ci kenn ci jolof ci bi di jënd. pour cent te tubaab fa dañ lay wàññil aussi soo waree fay cinq mille francs mhm. dañ la ciy wàññil bu baax a baax nga am ci boisson naan am ci passe taxi mhm. pour ñibbi mhm. troisième chose bi mooy booy fay sa ndox maa nga fay sa courant am di sa ndox maa nga fay sa courant ak kaapay boo daan fay fukki dërëm transfert pour fay ndox wala courant fay facture jàppal ni ñaar dërëm ngay fay wala dërëm KP daal boo leen bëggee dégg. non mooy moo yombale moom lu lu nu yombee. boo bëggee dégg dëgg daal Omaro man li ma jàngat boo bëggee dégg dëgg li ma jàngat. ak li ma gis. téléchargel ma mooy eh, KP. Euh, nañ ma may leen ma foofu tuuti kii dafa mel ni tubaab bi. da koo kii téléchargé ma KP bi bind ma sama tur. téléchargé ma maa ngi la koy téléchargé loolu. waaw defal sa tur ak sa man mii li ma la bëgg a defal li ma la bëgg a ci KP bi laa koy dugg. non bi lay jaar mën ta jaar fenn fudul foofu foofu. rek lay jaar. naasi. waaw mag bi nga xam ne moo ànd ak ñu suñu émission mag bi nga xam ne mooy grand bégué du lundi ak mercredi de 18h à mm-hmm. tey mu ñëw àndaat ñun bugg ñu ci li nga xam ne mooy spécial tam di plateau bu am solo ñu invité ci suñu bàyyi alaaji am di mu ñëw mhm. teral ko ci kaape jox ko juróomi junni ngir mu jënd essence dellu këram mhm. ma bëgg nag leeral tout sénégalais yi ci bienfait baax baax yi kaape di def fii ci réew mi waaw tey euh, ce serait encore un plaisir di wax ci kaape Omar parce que man nee naa chaque jour damay gën a gëstu ci kaape di gën a gis yu bees mhm. li Sali Babel wax dama koy dëggal mooy que ne booy def retrait wala booy def envoi zéro de frais la ci kaape booy fay sa carte rapido wala ngay fay sa ndox wala sa mhm. courant le mhm. KP di la laaj 1 pour cent ah, lépp lay fay lépp lay fay am di nga tëdd ba guddi sa courant ne kapet moo ci gaaw nga ni nga xiif wala nga mar foo mënti aw KP moo ci gaaw nga ni maay wax lii ba pare euh, am di tey jii nii bu 82 <laughs> waaw am bi 14 février 82. ay omoro KP bi defal 14 février waaye bu ñu xam sama date de naissance télé laa toog di wax ni mun nañ ma pirate. waaw kenn mënu maa pirate. mukk ci àddina ah yooyu day leer. xam nga fa nga laajte <laughs> dafa sécuriser ay yëfam am ji. ba pare ma lay wax ne que tey jii nii bu fekkee ne danga dem reeri ji euh, Jolof kenn KP da lay dindil moins pour cent ci li nga war a fay. Mm-hmm. ah bon maanaam am nga fa ah. paas wala am nga fa njëgu boisson. non attends mm-hmm. boo demee Jolof Chicken di war fa reer. waaw nga yor 5000 francs sa KP. boo ko fa yoree. 5000 mm-hmm. francs kese kese kese kese léegi 10 pour cent yi nan la koy wàññee. da koy jox liquide. da ngay fay da ngay fay li a dañ la ciy wàññi 10 pour cent. waa KP ñoo def ak yoonu yow. Ah, ba pare sànq bi. waaw ba pare sànq dama la dégg ngay wax lu am solo. waaw dafa am foo demoon yoroo liquide. am ko ci beneen transaction. waaw. te waroon fayee KP. waaw KP dafa laa misoo ak yeneen calpe électronique yi maanaam mën nga jëlee ci beneen calpe électronique yóbbu ko ci sa KP. comme par exemple ma sama carte bancaire. KP. mun ay def ah, non attends ah, ma yor sama sama sama sama carte visa par exemple. banque bi. moom ah, ubbil naa la ko mënumaa dem si banque bi. wan ko téléspectateurs yi ñëpp gis ko ma defal la juróomi junni ubbi na. Eh, eh, zoomal ma lii. andi zoomal ko ñu xool. ubbil naa la ko xaaral rek yow. zumal ma zéro franc ci nekk de. dama la ci dugalal léegi doo tee xam nga li mooy sa problème rek la woo. da nga service wul waa defal doo service. Eh, ci TikTok bi doo tee dama la koy dugalal balaa nga oh, oh, dugal ko léegi nii day dugg teel dama nekk direct TikTok. Eh, teel am na zumal fii. lépp solo mooy mu ubbi ko te ubbi naa ko mi ngi naa ko kaapay ubbi moom taxul yomb na ubbi moom yomb na la ko pare damay dem Pikine euh, seeti Abdoul Aziz kër Boy Niang ñu xool lim ñu fay teralee ci mbaax en direct ci live yu bi boo dëppee fekk mu yegg si ma coupé sama direct bi ma nekk TikTok yónnee la ko nañ dem kër Boy Niang te ñëw Amadou Ndiaye takk jug tajabon tajabon ni naar farmatar buya buya buya buya ala ko dumaane mbaa yirim may saxari mi ci jobu tajabon tajabon ni naar farmatar buya defoon nan ko daaw fekkee deeween defoon nan ko daaw fekkee déwén defoon nan ko daaw fekkee déwén taaja boon taaja boon taaja boon ni naar farmatar buya buya buya buya taaja boon taaja boon ni naar farmatar buya buya buya buya taaja boon faaja boon ni naar farmatar yabuya buya taaja boon taaja booni na defoon nan ko fekkee déwén defoon nan fekkee déwén champion baa ngi nii eh taaja boon taaja boon taaja naar Abdou ñaari malayka la ci kaw la jóge defoon nan ko daaw fekkee déwén bala ko duma ne maay bala ko duma maay may sa xarit mi eh, defoon nan ko daaw fekkee déwén defoon nan ko daaw fekkee déwén eh taajaboon ah taajaboon come on. wala doot du maane mbaay may sa xërim mi ci njobb si xërim du maanay sa maam addi yaagoyaan lo ca rek mu rees defoon nan ko daaw fekkee déewén defoon nan ko daaw fekkee déewén defoon nan ko daaw fekkee déwén taaja boon ah taaja boon defoon nan ko daaw fekkee déwén meraanaa ngi eh taaja boon salaamaaleykum mère Anna. maaleykum maa la bett nii Aziz di ma bett am na solo. <laughs> waaw xam nga da sama yaay di yaay Boy Niang nag laa jàkkaarloo nii téléspectateur yu 2STV kii mooy yaayu Boy Niang kii mooy yaay champion bi macha allah ñuy ñaanal Boy Niang suñu borom defal ko jàmm ñu ñëw fekk mu dem ay entraînement kon respecté na fi mu jëm yaay maa ngi lay ziar. maa ngi lay nuyu bu baax Ndiaye di leen delloo ziar di ziar waa 2STV yéen ñëpp. di leen nuyu di leen ñaanal yàlla yàlla def ci yéen jàmm yokk leen ba ngeen yëg ko ci barke weer bu bees yi ñu dugg Aziz maa ngi lay nuyu di la ziar Ndiaye yow fii sa kër la yaay kan mooy Cheikh Yérim Mbane Cheikh Yérim Mbane sunu maam moom la ñu suul fukki fan ak ñaar suli ko mel ni tey la mu da dajale Kajoor ak Bawal ku ko sulli woon ku ko sulli woon alaaj Samandu Kumaan Sekk taaw moo ko sulli woon ca Tiwaawan moom mooy sa baay moo ma jur mooy sama baay moo ko bàyyi ba mu am fukki fan ak ñaar ci biir suur mu sulli ko mu mel ni tey la ko koy Cheikh Yérim Ndoumane Seck tey lan ngay ñaanal àdduna. di ñaanal ñëpp nag di déwénati ñëpp di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq di ñaan yàlla yàlla nañ ko fekkee at yu baree baree baree bare yàlla may ñu gudd fan ak wér ak fekke kenn bañ a manqué mm-hmm. at mii ñuy dugg daal nan dàqal ak ñu ni génn mm-hmm. di ñaanal ñëpp. di ñaanal bépp doom di ñaanal waa 2STV di ñaanal Abdou Aziz Ndiaye sama doom ji nga xam ni moom ci kër gi la tey jii moom moo am droit ñëw def na ko neex ci kër gi ndax fi la dëkk. ana Assane. Assane a ngi ne ci biir kër gi. mi ngi nii taxaw sa baay déggoo la ngi fi. di def lu baax uuf fi njabootam uuf ay rakkam. ana Paas uuf Paas sekk nga ca France. di def lu baax. yaay dañu bëgg na nga dogu dañu bëgg nga dogu Sénégal am jàmm. di ñaanal ñëpp jàmm rek. gudd fan ak wér ak wërsëg yéen ñëpp ngeen bokk ko di ñaanal nag lii ñu jëm yàlla nañ ci yàlla defal jàmm booy ñaan lii mu jëm combat bii mu jublu yàlla na ko ci yàlla defal jàmm yàlla na ko ci yàlla may ndam bu sedd guy ndax doom ju ma bëgg la juma ma yërëm la ju yiiri mbokkam yiiri famem yiiri ñëpp kon nag lu muy dugg rek ñun dañuy jàpp ba set di ko ñaanal jàmm ak xéwal ak ndam kon kër gii ñu la fekk booy ñaa ak oto bi ñu romb macha allah moom moo la ko jëndal moo ma ko jëndal moom moo jëndal kër gi defar ko ba mu baax ni yaay bàyyi ñëw leen ci biir kër gi ak i magam. lan ngay wax yeneen doom yi. di ñaan yeneen doom yi rek yàlla may leen gudd fan ak wër ak wërsëg di ñaanal ñoom nag mag ñi dañuy ñaanal. Mm-hmm. Assane moom suma xarit la waaw mi ngi ko Assane dinu ñu jàppale di ñu yiir yërëm nu ñoom ñëpp ma leen di ñaanal gudd fan ak wër ak yaay fi ma taaje boo ne loo ci wax kontaan rek fi nga ñëw fii la taajaboon taajabooni naar farmatar buya buya buya buya taajaboon boy ñaa champion bi bala koddu maa ne yirim yirim yirim yirim yirim taajaboon taajabooni naar ana samba jaara mbay taajaboon taajabooni naar farmatar buya buya buya buya samba jaara mbay taaja boon taaja booni naar xolal samba jaara mbay moo xew ci jamono mooy filing paaj yëngal jamono defar jamono moom lañ ko xamee ey samba jaara mbay wax leen samba jaara mbay ku sa reeru bay doy dootala xaaraani bam di la ba max ku wekku njoowaan da ngaa fesee ne mooy sali ngor nga bacal koko ey Thadia Bone ey Thadia Bone Thadia Bone naar farmatar buya kaata fayu kaata kaata fayu ye ku la masa kaata door nga konkur fañ kaata fayu ñëwal Samba Diarra yow fii ku ko moom Samba fii ku ko moom yaay sàmm gaay yi taasukat yi bàyyi nañ li ngay sàmm dee sàmmanteeg nit ñi sàmmanteeg yàlla yaay sàmm gaay yi lii la yàlla dogal Serigne Bara Mbacke nga bokkal aafiya ey taajaaboon dégguma leen de xale taajaaboon xale taajaaboon nga loxo yi daje taaja boon taaja booni naar farmatar buya samba may wax leen may wax leen e romb sa dooxinum be sa nday teral tabaxel ko kër sa nday teral loo am jox fekke faj xawma loo wut la waxul ku si xa teranga waa koñ bee eh, ku ci génnul da ngaa soxor kaay leen e ku ci génnul soxor bokk ci génnul da ngaa soxor la ci Tadja Bone déwén waaw waaw Samba danoo taaja boon si tey ah Samba yaay si yaay damay jox Samba nan nga dunda caa taaje boon jee de waay leen lii waay taaje boon Samba Diarra Mbaye wax Samba Diarra Mbaye ci kaw laa jóge daanu ci kaw suuf mu ne yaay ji ba xam njulli nga mu ni ko déedéet defoon nan ko daaw fekkee déwén defoon nan ko daaw fekkee déwén mbasa mbasa man de 2STV nag nii la defee taaje bon bi ñu ngi en direct diaspora baa ngi seetaan yaa ngi en direct 2STV man xale bu manul du ma la seeti de man a Aziz Ndiaye géwél bu Sulucé xam naa mbax xam naa pin xam naa mbax xam naa pin tey nag maa ngi seet si sama doom Samba Diarra fekk ko biir Pikine Samba nan ngay baaloo àq nit ci at mu bees mi. waaw Aziz yow moom suma nijaay nga suma papa nga ah maa ngi nuyu Sénégal yëpp nag di kontaan ci ñëpp di bëggee ñëpp di siyaar ñëpp di wax ne nag. ñi ngi baalu ñëpp ak ci bis bu mag bi nga xam ni euh, mooy bisu ñëpp yaa ngi comprendre waaw tey nag ma kontaan ci fii nga ma fekk nii waaw ndax ñun ñun ñun ñun ñun banlieue lañ dëkk fii mooy sunu Paris la France donc soo ñu fi fekkee dañuy kontaan euh, ñuy baalu ñëpp ak di di di wax ni yàlla na yàlla jéggal ñëpp ah euh, yàlla nañ koy féete ay ati at yàlla nañ ko fekkte ay déwéni déwéni déwéni déwén en tout cas kontaan ci bis bi Ah, ah di kontaan ci ni nga ma fekkee ni ma toog kontaan naa bu baax di nuyu waa 2S nag. wóolay <laughs> wóolay. jërëjëf Abdoul Aziz géwél bi sulu c'est macha allah ñu ngi am ci moom kontaan ak mbégte mu rëy rëy di ko ñaanal yàlla guddal fanam téwéral ay cëram bu baax a baax di nuyu suñu frère yooyu mu fekk ji. di Boy Niang lutteur champion bu mag bi ak ki nga xam ne mooy sàmba jaara Diarra ah tubaarkàlla taasukat bu mag bi waxkat bu mag bi nga xam ne tubaarkàlla boo xee rek ñu xam ne war naa wax ndax dama jóge kii waaye mbokk yi damay doxantuwaat ak yéen nànk ñi dem xooli sponsor mag boobu nga xam ne mooy Kadi taraanga ji nga xam ne def na ko tey ci toggum cere Mbaacu Njaay ndax nee naa leen Kadi mooy sponsorisé émission bu mag bi ak kàppe yi ñëw naa ci kàppe yi léegi am na mu ñoo dóor naa ko 25000 léegi yegg na ci téléphone am. mi ngi leen ko wan léegi ngeen teg seen bët. wala mu ngi ñu xool léegi wan ko parce que koo xam ne rek la woo comme rek la woo damay bëgg say mbir di leer am na vingt cinq mille yi wane ko nit ñi gis ko am li alors coppati ñu nekk ci waaw jëlal ma vingt cinq mille yi am na jëlal bu ñu noppee dem waaw très bien waaw très bien kaapa yi yónnee na la vingt cinq mille sa essence leer na leer na tàggoon nag yow léegi nag dañuy dem seeti Alija Patra ñu xool ah, ah, sponsor mag bi nga xam ne mooy mooy Sénico li mu teralee Mbathio Ndiaye tey ci toggum cerem bisam bii nga xam ne tubaarkaal la bëccëg bi ngeen amoon li nga xam ne mooy togg beeg ndugg beeg dem marché bi léegi nag li ngeen a am mooy ñeex bi ak dressé table bi nanu dem xool Mbathio Ndiaye en direct ci biir këram ñu dressé ñu la rek nga nga nga rëgal ak ban moment aussi nga nga yaakaar ni heure boobu la ndugg yu ñor nga war a seppi sa yëf waaw léegi moom ku ko xool ne gis ne baar na waaw léegi moom rien à dire parce que boo xoolee sànq bi ñuy commencé ak léegi xam nga bokkul waaw <laughs> yow bu soo ba léegi ñoo ngi yéen fu ne lépp tëmb na lépp génn na légumes yi ñor nañu dañuy commencé seet nga mhm. neex waaw pare naa ah. li ngay li ngay jaay ngay li ngay utiliser ngay jaay damaa yëg nga li macha allah jaajëfal. di leen wax ne tey dañ ko rukk ba mu nooy Xadija. dinañ ko rukk ba mu nooy gis nga Boubacar Bongo. si ma dama koy rukk tey ba mu nooy. ambiance rek xam nga at at bu bees dañ koy ambiance. dëgg la mais dëkk bee toll foofu nag. dëkk bee ak réew mi toll. stress bi dafa bëri. te damay wàcce stress yëpp tey ku lekk sa cere pare da ngay toog des bi seetaan ma wàcc sa coono wàcc sa stress. te wax du am ak rek la 2STV télé bu mag. ayca ñu bàyyi la nga seeti léegi waaw. pare moom ñu gis euh, ni yegsi nañ ci li nga xamante ni moo gën a am solo sax mën na ko daanaka ci bisu tamxarit muy bomb bi waaw gis nañ nag nga préparé sa bomb bu léger d'après li ma gis nii. Hmm. bëggoon nga expliquer ñu rek pourquoi nga choisir bomb bu léger bi nii. waaw Khadija damay am contentement rek di wax ne lii mooy phase finale comme ni ñu koy waxee 9h ba tey maa ngi ak yow. Mm-hmm. ñu préparé woon def suñu caritam xarit. comme ni ñu ko bëggee woon ñu commencé ko ci bisimilah. ba mm-hmm. séenee koo tàmbali ci alhamdulilah rabbil alamin lu tax nag may def euh, cere bu léger. Mm-hmm. mooy dañoo. nekk ci dëkk bu nga xam ne nit ñi wéruñu bu baax mm-hmm. donc ñun suñu dëkk sax boo demee Koungheul ñun du ñuy ay bomb cere yooyu mm-hmm. cere siim la ñuy def wala cere baasi wala cere mbuum dëgg la mais comme tamxarit lañ nekk ñëpp di bomb ñu bomb rek mais man d'ailleurs ay vendredi su ma togg fi cere mm-hmm. du ma def sax bomb waaw da siim rek waaw ma def sama haricot bu yem rek. Mhm. daal di def sama raisin. Mhm. waaw def sama beurrekat yi. waaw suñu beurre bi nga xam ne lañu àndal. waaw suñu accompagnement mhm. nga xam ne lépp tey lu ñu fi utiliser rek. comme bouillon ak lépp lu mu mënti doon moom moo ñu accompagner. fas yéene bomb suñu cere rek. Sénico moom lañ naan set sell te wóor. Sénico ñooy lépp. waaw kenn du ñëw boo lekkee da ngay dem tëddi tranquillement doo am benn problème. dégg naa Sénico rek moo mën loolu. ñu bàyyi la nga bomb sa cere. waaw Khadija tey façon cere bu ne di ko gis tey ci dëkk bi. dëgg nag léeg-léeg nga dugg ci internet bi gis façon cere yi doy waar. bu ne mais nag nañ sóoraale ni ñu wéruñu. Mm-hmm. dëgg la. pour def lu yem rek. c'est très important waaw guddi gi daal dafa wóorut. te tam xarit dafa doon feet boo xamante ni guddi ngay lekk. jóobe nañ def nang. doo am <laughs> d'accord naa ceeg yow foofu de. waaw nañ def nànk mbokku joomee nii. damay bomb bu yem bi nii rek. Mhm. mais bu ko tibboo sax sama ay nit ñu bari nag fu mu nekk nii. macha allah lii laa naa ko ba sonn. jiga hmm? am daa mel ni pare nañ suñu bomb léegi coppati lu ñuy def. xanaa dem teg ko rek ci table bi su ñu ko tegee ci table bi fekk dressé naa pare. Mhm. ak ah, man moom ci fajar laa xëy. waaw teg sa table. waaw ah, teg sama table génne samay vitrine teg. Mhm. léegi bu ñu paree nag may jël sama meewu alim. nga xam ne Sénico moo ñu accompagné ba tey. waaw xam nga meew boo ko ak cere boo ko lekkee pare foog nga def ci meew. foog nga def ci meew waaw ñun Sénico rek lañ àndal. ayca Sénico laay ñëw léegi àndal defal sama meew. bu baaxee bu baaxee rek ñu dem la ma gis ca table ba nag doy na waar. ayca <laughs> Bruno bu baaxee rek ñu dem. ma dem Bruno. Khadija. macha allah. cere baa ngi nii. allah sa dressage lan la. waaw gis nga. Ah. léegi mën nga ñu mën nga ñu expliquer nii ni nga ni nga positionné bagage yi ñu xam lan mooy dem fan. waaw bagage ni ma ko positionné comme ni ma doon waxee rek. Mhm. chaque jour dama koy def ci Snap bi tey nag tey mag bee ñëw du jar Snap tey. waaw waaw waaw ku ne xam ne. vitrine Cheikh Mbathio moo fi mhm. jaar mhm. nga def entrée résistance mhm. waaw tey sax entrée bi du ko doon jar résistance bi rek jaroon na ko ndax tey cere tam xarit la résistance bi su ma neexee da du ko doon jar bool rek jaloon na ko dama fiy seen ne nank ay kaasu ataay loo nar après caay waaw dégg ak suñu tee fële chat waaw dégg nga ko accompagne bi waaw seen i ko dañu piré ndax nga sa kaw laal waaw chat bi ba koy naan fu ne fii ba fajar mu digéré la mu digéré lekk gi yëpp xam nga cere ji ak bomb ak kay ku ne di nga gis façon bomb bu ne. waaw di ko sama xarit Babacar di waxee <laughs> bàyyi leen banaana yi ngeen def ci. <laughs> jar naa bàyyi xel parce léegi nag ku ci bomb ba pare te flécha dimbale la. nga digéré. waaw flécha ñoom daal waa Sénico daal dañoo wóor. am na solo waaw dañoo wóor set sell te wóor lañ koy wax. waaw yéen nag bu ngeen di ñëw ma defal mhm. na rees ak jàmm. waaw wuyul lii Bruno mm-hmm. après danga may jëlal yi inséral ah teranga ak nëbët mhm. sama invité yi. waaw lekk ba pare jël sa meew daal def. def sa def sa def sa euh, paquet mouchoir utal ko kiiwam waaw. mu ànd ak décor bi. xam nga yii tamit da ciy baax. parce que tey jii tubaar fa kàlla macha allah mën nga togg lu neex mais ca taajin ba duñ ko mën a lekk. waaye yii nii boo xiiful sax amaana dangay am envie lekk. dangay lekk par la conseil ngay jox suñu mbokk jigéen ñi ci loolu. waaw ak vitrine Cheikh Mbathio li ma doon ko waxee rek jéeg bu ñu seet si nga ñeme ñu rek dangay ngay teg par la force nit ñi dañuy lekk par la force mu neex ak lekk gi mhm. na naqari sax mais nit ñi dañu koy lekk ci taajin bala nga ñëw jënd say vaisselle génn fu nooy nit ki bu ñëwee ak lu mu mënti men même bu lekk bi neexul sax dafay lekk mhm. may wax sama mbokku jigéen ñi dañu ngi góorgóorlu sax ndax dëkk bi neexul mais mhm. ñu gën a góorgóorlu rek mhm. eh, ci problème mu vaisselle bu baax nag vaisselle que des fois damay seetaan si na bi sama eh, sa jëkkër bu ñëwee su bëggul lekk sax dana lekk par la force parce que li ngay am tubaab kàlla macha allah alors bu baaxee rek ñu bàyyi ko mu dressé ah, indi yëf yi ñu xool nan la parce que toujours en toute la journée à vous que ñi ngi àndoon nag moom 9h ba 20h ñu ngi àndoon ak moom euh, mu dugg ñu dem marché Castor mu dugg ah ñu ñëw ci kër gi wax dëgg yàlla mu simmeeku def yi fu jeeg ah laal oyof dugg ci waañ bi toog tuwaat kàlla macha allah dañ koy bàyyi mu dressé rek ñu ñëw amal amale waxtaan bu ndaw ak moom ndax fan si namu nañ yàq bi nag moom premier yàq bi ah. premier yàq bi soxna Aida Saliou mu Cheikh Béthio laa ko may ah macha allah Aïcha soxna Aida Saliou mu Cheikh Béthio laa ko may sama yaay moom rek laa indi tey waaw macha allah moom laa moom la dafa bëgg lu baax. Mhm. soxna Aida Saliou jëlal sama yaay ji. jël na lépp yow na lépp. borom mbuur. alors ñu bàyyi ko mu dressé rek. ah ci kanam ñu amale waxtaan bu ndaw incha allah. alors Mbathio. Hmm? comme journée bi yëpp ñu ngi ànd doxantu dem marché dugg ci waañ bi pare dressé. desul lu dul tàcc ñu bëggoon nag ami téléspectateur yi ñuy seetaan sur la 2STV nga wax leen mbaaju ci lan la ne. <laughs> jamono ji waaw jàmm maa ngi ci mhm. jàmm. Mhm. di profité nag ci occasion bi di wax ñëpp nañ ma baal àq. Mhm. lu ma yëg ak lu ma yëgul ndax àq dafa sew. di eh, nuyu waa Liberté 6 yëpp di leen masawu coono xam nga man moom. fu ma dëkk dafay léej. nuyu waa Koungheul sama yaay Ajaratu Mariama Cissé di nuyu waa Kër Malle sama papa. El Hadj Ibrahima Ndiaye. di nuyu ñoom tonton Cheikh di nuyu ñëpp daal képp ku nga xam ne yaa ngi yeewoo askanu kër Malle Tiwaawan maa ngi lay nuyu parce que nag ku am famille yaay am famille papa di nuyu diaspora bi nag ku nga xam ne 2STV tamit mooy la télé autrement mm-hmm. di nuyu képp ku nga xam ne yaa ngi nekk Moodu Moodu wala Faatu Faatu di daan sa doole gis naa lépp maa ngi gis message di gis appel di gis lépp di leen wax ne maa ngi ci liggéey bi bu mm-hmm. yàggul léegi dara euh, le 10 xawma le 15 ba le 23 ñu war a nekk tournée. Mm-hmm. donc ñu ngi liggéey bi ñu ngi ci waar bi ñu ngi war a dem Italie. Mm-hmm. a bi yëpp. Mm-hmm. wax fan si maa ngi ci jàmm maa ngi ci salaam tey fi ñëwoon toggal leen ci tam xarit ànd ak la 2STV bi kontaan ma yendoog yow nga nuyu bu baax patra nit ku baax incha allah ma ah. profité foofu rek ah, euh, dafa doon baax sax bu ñuy door ñu def ko mais ko xel day fàttu ñu nuyu ñi nga xamante ni ñoo toog foofu sur le plateau ah, sama frère sama xarit sama papa euh, ko ci naa Omar waaw mu sell mi vraiment mi ngi def liggéey bu am solo mi ngi naan la déwénati euh, di la baal ak di la baalu ak itam di ñaan euh, yàlla ñu ngi ko fekkee ay ati ati at sama papa am di ah mes chéris qui sont sur le plateau très jolis macha allah di def liggéey bu am solo sur la 2S ah n'a pas eu l'occasion de se voir mais maa ngi leen di souhaiter bienvenue sur la 2STV lépp li ngeen fa mbébét ah, yàlla na leen ko yàlla suñu borom may yéen a ngi def liggéey bu am solo alors. ma chérie bu mhm. bëggoon xam euh, force bi Mathio am ah force courage bi mu am pour problème bu am rek mu ñëw surmonter ko fan la ko jëlee ak lan lan moo koy may force waaw loolu ñu ngi koy wax force intérieure mhm. force intérieure nag boo ko gisee da nga koy jëlee ci say parents ñun boo demee euh, sama famille yaa ñu ngi bokk euh, famille bu ñuy wax jaamal jaamal mhm. après Kaolack la xam naa ñi xam ñu xam aada ak cosaan dëggantaan ku ci mel ni Omaro ma koy nuyu de passage sama mm-hmm. góor sama xarit sama lépp mm-hmm. moom lu mu def foog ne na baatoo gën mm-hmm. lu mu wax foog ne baatoo ci gën ma koy nuyu bu baax waa di ko nuyu nuyu boo xam ne daal am na commencement mais amul fin di pëttaxluwaal di nuyu sama DG Matar Diop suba teel aussi da nga koy nuyu bu baax chéri Kia mais force intérieure da koy commencé ci say waajur te boo fekkee rek boo tëddee nelaw mooy yaa ngi ak force intérieure ndax ñun dañoo siiw siiw du jaami borom te ku siiw foog naa il faut ñu wax ci yow bu ñu waxul ci yow muy artiste ak loo mënti doon théâtre kat ba comédien ba loo mënti doon doo dem mm-hmm. mais il faut ñu wax ci wax ci yow bi ñu wax ci yow nag nañ la séentu ci gaalu xaj mais buñ la ca fekk ngay lekk noonu la rek force intérieure rek mooy force bi nga xam ne yaa ngi koy jëlee ci say waajur indiwaale ko man sama yaay rek mooy sama force ndax su ma gëstoo gis ko rek amatuma dara lu mën a xare mhm. may ñaan yàlla bàyyi ko fi guddal fanam wéral cëram mhm. macha allah mhm. euh, ñaan yàlla mu gudd fan lool lool lool day naka amit ci say fans wala ci ñi la bëgg parfois booy booy nekk ci yenn yenn problème yi wala yenn situation yi yow vis-à-vis de say fans ak nit ñi la bëgg nan nga koy ak ñoom parce que tey jii nii ku nekk rek am nga ki la bëgg te ki la bëgg moo la sonal ban nan nga koy dundee ak ñoom daal vraiment. waaw. Euh. waa Khadija xam nga li ma lay wax léegi rek <laughs> ay reetaan daf may jàpp sax des fois parce que yàlla boo la wàccee ci àddina mm-hmm. def la ngay artiste comme ni ma la ko xam ñun ñu dund sans problème. muy man xam naa artiste bi rek mooy siwle mm-hmm. mais tey ku ci mel ni tey sama ay dëkkandoo wala keneen koo gis dafay xëy nekk ci ay problème man sama sinab bi damay xëy suba ngoon nit ñi di ma message di ma laaj mbaaju nan def ba surmonter li mbaaju bi nga nekkee ci problème bi nan euh, ma la wax léegi rek on on ne peut pas vivre sans problème mm-hmm. mais il faut savoir surmonter mm-hmm. surmonter avec la tête haute nag mooy dafay fekk nga clean clean bi mooy dafay fekk yow boo tëddee na nga nelaw tëdd nelaw bi nag li koy waral mooy yow à te reposer rek laay yem ndax su ma bëggee xuus fii la ñuy fanaan <laughs> te loolu li ma la wax noonu ko am dégg-dégg mm. xam na mbaaco lu mu bëgg a wax la ñan ñan ñan ñoo doon ñi la la ñi la accompagné woon ah ñi la may force je peux dire à sa mm. yaay parce que ku nekk tamit am nga say nit mm. euh, te conseiller dafa baax ci nit vraiment muy say nitu bopp ña nga xamante ni vraiment euh, accompagné nañ la te nee nañ la doxalin ñi doxalin ñi doxalin la xam nga tey ni ñu koy waxee rek tey sama yaay moom mu ngi Koungheul waaw moom mën na ma accompagner ci commencement mën na ma accompagner ci fin mais soo nekkee euh, biir dakaar mm-hmm. dakaar nga nekk. Mm-hmm. tey may pëtax du waale tey di nuyu ku ci mel ni soxnaa Aida Saliou Thioune. Mm-hmm. mu bëgg ma lool. nit borom buur nit ku baax bëgg ma. fonk ma teg ma place respecte ma tamit xam maay kan. waaw di di di nuyu ñëpp di nuyu kulli cantaakun. Euh, di nuyu nag sama xarit sama doomu ndey màgget Ndiaye yaayu Fallou. moom tamit daf ciy jàpp bu baax a baax a baax. di nuyu ajaa Fandoy moom ku ko xam na ko man. man rek man rek dama koo yaayoo man rek maa ko mën man rek maa ko mën a déplacé Serigne Pape Baro mi ngi noonu dama nit ku baax a ngi noonu nit ku baax ku rafet xol ma lancé waale na damay puus ñëpp kon dootoo ko defati parce que <laughs> ba dafa bëri yow man ak yow suñu problème après dañ koy lijjanti ci suuf parce que Adja moom sama Adja la dag may may naa la yow may say <laughs> may naa la mm-hmm. di profité aussi di nuyu Papis Nia Arbi Ménagement moom ku ko xam-xam koog Mbathio Ndiaye mm-hmm. moom su moom su moom su moom mu mënti meen bëgg na man maay biyoon sem comme ni ko Matar Diop suba teel waxee moom tamit dama koy nuyuwaale Matar aw ma fayam mm. Matar li nit ñi di gis li may defal nii sax mm. li nekk ci suuf moo ëpp mm. parce li may defal barki salaatul faatiha barki Seydina Muhammad am na ñoo xam ne tey bëggoon nañu am frère bu mel ni Matar Diop suba teel bëggoon nañu am frère bu mel Papis Niang man dama am ay nit ñu baax ñoo xam yàlla daf ba mu jàppee ba tey bàyyiwul ba ba tey mu ngi c'est des gens bu laa 2STV noonu la ciy jàppee. franchement nit ku baax la Bijou. dañu ko gis si muy télé télé mais nit ku baax la ku ma bëgg. Mm. ku ma jox cër ku ma respect koo xam dama koy woo lu mat 4 de temps ñuy waxtaan man ak moom loo xam nangulu ko kenn. Mm. kon nit ki bu la defalee lu baax day baax ci instant yi nga di ko ko waxal. Mm. ndax télé moo taxaw. di nuyuwaale aussi sama seetkat la plus grand seetkat du monde naa ah, jigal moom da ngeen ko koy may mu pëtaxlu ci waale mm. moom tasim Serigne Moussa borom Pikine ku ma bëgg la lu ma ko woo mu ñëw Babacar Bongoman daf fii ñëw toj léegi Boubacar lu ma ko woo lu mu guddi guddi sànq laa woo ko ne ko Boubacar loo jàppoon bàyyi ko fu ne bu ko Macky Sall woon sax lay wuy si xam nga loolu dafa neex borom kaata fay mu ngi ñëw. waaw coloré. waaw di nuyu nag. Mhm. sama assistante. Mhm. xam nga man ndeysaan damaa taamu di wax ba 4 heures du matin 5 heures ma tëdd di nelaw. Mhm. di aayaa bimbam. Eh. su ma yeewoo fekk xale bi defar lépp. da ngeen di dund xale bu loxoom setee mën a bokk ak ah. mag ndab. Adja du bàyyi ba fenn Maguette Ndiaye du ma baax Khadija nit ku baax la. borom Saint-Louis. Khadija yàlla na ko yàlla may jëkkër Khadija si soxo waaw <laughs> ah, sa xarit la kon jeex na xaritoo ngeen de kaa bi garaaw na de kaa bi na daal yéen bee ko waral mu toppatoo ma nit ku baax la mhm. nit ku baax la ah. mais fatal ma foofu bi inspiration bi nu ñëwee parce que gis nañ ci ay paroles yu tegu xale yi di ko dund ba pare di ko snap di ko tiktok mooy waaw mais mooy réalité bi mhm. fokkal ma foofu. réalité kese laa fa wax. vie bi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy dund. te mënuñu koo wax te mënuñu wax. stress bi euh, ànd ak nit mu def la lu bon. Mhm. ànd ak nit mu yóbbu la ci sëriñ. xam sa mhm. tur yaay xam sa tur papa yóbbu la ci sëriñ. soo lekkee du la ko yéene boo naanee du la ko yéene boo solo du la ko yéene boo takkoo or du la ko yéene. en parlant de or ma nuyu sama mag mhm. sama xarit aji caam Grazilia. chéri monsieur Niang. nit ku baax Fatal ma foofu daal dama ko indi pour sénégalais te gis naa bi ma ñëwee ni ko sénégalais accueillir te c'est pas la première fois mm. boo xoolee photographe photo ma mm. coppati ba tey mm. sénégalais yaa ngi ma topp lu ma génne ñu ne gong lu ma génne man damay tëdd ba ci yàgg ma ne man sant naa yàlla bu fi yemoon sax neex parce que man man jugu man juguma woon pour wéy mm-hmm. dama jugoon pour fecc def Oscar des vacances jaar fa dugg fii génn fii mais ñëw ba yàlla teg la foo xam ne tey fu ñu tuddee tey ay woykat tudd la ngay sant yàlla. Mhm, macha allah waaw foo xam ne nit ñaa ngi fa bëgg a dem te mënuñu faa dem. Mhm. tey je me pose la question tey benn artiste boo ko ne tey si secret à refaire. Mhm. nga nekk artiste mu ne non non du ma ko def man du ma wax loolu loolu hypocrisie la. dëgg bokk na ci yàlla teral la ci dara nga nangoo ko man yàlla daf maa teral ci aar bi ma naa Angleterre laa ci njëkk a tukki. Mm-hmm. teg ci Amérique doog a Schengen bi. macha allah ba tey jii macha allah je touche du bois. Mm-hmm. loolu sama loolu du nekk lu ma mën sénégalais yee ma dooleel kon aw ma seen fay. Mm-hmm. sénégalais yi rek la lu ñuy wax ne mbaaju. nuyu sama mbokk Gambien yi su ma demee Gambie ñoom tamit vitrine chez mbaaju yóbbu fa ay yére ñu sonn jënd. ku bëgg da ngay jënd ku bëggul da ma gis daal ni ñu may jàppale daal man daal sénégalais aw ma seen fay su may wax seen su may wax seen baax. fii laay fanaan aw ma seen fay. ah macha allah. Mhm. alors mi ngi noonu ñu dalaloon ki nga xamante ni ah mooy Mbathio Ndiaye kenn dootu leen ko présenté di ndaanaan ci li muy def macha allah ñu àndoon ak moom nag 9 ba ñu ngi nii ah di waaj a reer nag di nuyu amis téléspectateurs yi toogoon di ñu seetaan sur la 2STV la première chaîne de télé privée du Sénégal waa diaspora bi fàttewuñu kenn waa Gambie euh, Europe Italie. partout dans le monde ku lim juum ah ñu ñuy seetaan sur la 2STV nekk sur nos plateformes digitales itam moo xam Facebook bi la wala mm. YouTube bi la ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi jot seen ay commentaires Aïcha waaw di di xam nga rek ñun bu ñu jekkee. waaw faaw ñu remercier. waaw bu ñu ñëwee ñu ci jàpp ay ñu ci jàpp. comme yow ni ñu la ci jàppalee nii man tey Mama Diva moom a génn fii Diva Couture. Mm-hmm. Koso moom tamit nit ku baax nekk fii Nord mm-hmm. nit ku baax Mama mm-hmm. di ma ñawal ñaw yu rafet di ñawal ñëpp mm-hmm. mais man moom dafa maa bëgg personnellement di nuyu sama tailleur yi sama couturière sama couturière ñëpp maa ngi leen nuyu ku ne xam ne ne man ak ñoom samedi ak dimanche la bés doxul ci diggante bi di nuyu nag tey ki ma jaarale fii mooy xale bu baax Nogay mu ngi nii toog nit ku baax la soo ba tey xam nga jour tam xarit nga bàyyi nga woo xale mu bàyyi léppam ñëw ak mm-hmm. aada nu mu fooree ak cosaan dafa metti mm-hmm. mais nag patron am tamit mooy Nafi Nafi nit ku baax mbokk ndey mu maa coro mm-hmm. ñu ne nekk fii ci korom ak bi ñoo fi jaar ci musóor gi defal ma sama yëf ba mu baax ni waaw ma jongo ma <laughs> waaw def lu ma saf nuyu naa ñëpp daal sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp waaw ñëpp daal ni ma ko waxee rek ñuy remercier yéen ñu toogoon di ñu teew sur la 2STV bi di nuyu bu baax sama waa kër maman Patra maam ma mami loolu yi Neyma maa ngi leen di bisu bu baax a baax a baax di naan nag tey moom cere bi dafa ala dafa ala dawme xaw ma dañuy rëkk bongo yi doog ko dem wala dañ ciy dem ba pare door a rëkk bongo yi. ah lu ngeen ci mën def daal mën naa en tout cas. waaw def naa sama yàpp. ak sama ginaar. Mhm. ak sama yëf waa mhm. ku jege foofu rek nag ma ubbi benn kaa bi daal danse na xadi xadija ubbil gis ubbil soos bi noo sama caméraman bu garaaw bi 2STV bi kenn du yéen la télé autrement di profité nag di nuyu sama yaay. Mm-hmm. maman Marème. maman Marème daf ma bëgg. Mm-hmm. démb daf démb daf ne ma Mbaajo il faut nga toogu cere bi. Mm-hmm. Mbaajo yow laa wóolu ci cere bi. di nuyu Aïssatou seen commercial. mooy Ndeye Gisère. di nuyu Lamp. di nuyu nag de deux civils dama faa xam xarit spécial. muy Omoro. <laughs> Omoro moom su ma koy nuyu moom fii lay fanaan. ne moom laa reen dimbalax la ma tuddee xam dafa jeexal ay wax. sama mag la sama xarit la kooku mooy euh, koy nuyu encore une fois ah, moom ak ñoom ah, sont sur le plateau. alors di doxantu ndànk nuyu nag sama benn yaay di nuyu sama benn yaay. Mm-hmm. Yacine Doucouré. Mm-hmm. sama yaay sama xarit barki dem ba muy xew ndeysaan fekk ma benn xew dafa ne ma maa fii dama jóg rek mu jóg. Mm-hmm. Yacine Doucouré une grande dame. bu dëkk Pikine def lu baax. keroog bu ma fa àndeek ak mii xaalis bu bëri la ma teralee. Yacine Doucouré maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. di ko sant di ko gërëm. di ko wax ne ko man aw ma fayam ndax nit ku la gis bëggal la boppam di la defal teraanga amoo fayam. ndax ku la ñee du la dollil foofu la ak fi mi toll nii mm-hmm. ku la ñee du la dollil Sara yaay ndeer Aïcha merci beaucoup merci beaucoup à Lamp Gueye Aïssatou liggéey bi am na solo liggéey bi rafet na di xoolal benn sax njaw du joojo faj na joojo mer bu yàgg la waaye joojo faj na joojo tey fii ku bari jom mu yéen jërëjëf jërëjëf kooku suma doom la Babacar bongokat bu mag bi tubarkàlla macha allah Babacar maa ngi koy ñaanal yàlla guddal ay fanam te wéral ay cëram bu baax a baax Babacar lu mu bongowul guddi ma wax ak yow baaxul xale la boo xam ne jom ak fulla ak fayda personnalité maanaa ak dignité bu mag sëcc la indi ci li nga xam ne mooy bongo fii ci réewu Sénégal ba pare nag yeesal ko innové ko tubaar la nooyal ko ba mu nooy nee na mbarki dem mu Ndiaye fii confrontation lu may doy bëngoo bu dëgër day gën a nooy waaye sama doom ji maay sa baay maa la ko digal tubarkàlla macha allah on est au vingt et unième siècle on est au monde des images de la communication. li jamono laaj dee ko def bëngoo bi na gën a nooy maay sa baay te maa la ko digal tubarkàlla rek ajaratu Mbathio Ndiaye def na lu am solo waaye balaa ñu ciy détaillé di ànd ak moom à beauté di tëj émission bi dama bëgg ñu dem Pikine nan dellu Pikine Mbathio xaar ma tuuti rek maa ngi ñëw ci yow léegi mbokk mi yaay Adja Fandooy sama yaay ju baax ji loo dund doyul waaye Khadija Patra sama doom ji maa ngi koy nuyu sama rakk xol boobu sama rakk bopp ji di ko ñaanal yàlla guddal fanam téwéral ay cëram animatrice bu mag bi doomi mbër jàngal yàgg yàgg des na la ñam daa doll Aïda Patra mooy yaayam lu na def na ko ci réew mi ci wàllu animation kon tey boo doon ne taxaw sa taxawaayu yaay lii rek la war yàlla sa jàmm yàgg sama doom ji longue vie à toi nanu dem xooli nga xam ne moom la ak Abdoul lu ñu teralee réew mi tey ci bisu Tamxarit bi tan dellu siwaat ci baax doogu acca Amadou. sunu mbaax gi may nu leere yaram bi Seexu Bamba Mustafa Basiiru may nu la dootu nangoo dolli noo gi doolal noo Seex Moodu acca ba mu fee faalu si bite mi ngi direct ah waaw jërëjëf ñi ngi jóge léegi Pikine Icotaf syndicat seeti fa ay nit dem ci at mu bees mi waaye nag ñoo ngi fii ci Patte d'Oie Builders seet si Cheikh Modou Gueye kan mooy Cheikh Modou Gueye bi may wax rek li ma Mama Samba di ma wax li tax ma engagé wu ci moom lu ma wax ci Cheikh Modou Gueye dëgg la damay wax rek courant bi coupé woon tàkk kon mooy lumière Serigne Moustapha Bassirou muy jàmbaar joo xam ni mi ngi fii waaye mi ngi fépp boo demee boo ko làmbee mbuur fekk ko fa boo ko làmbee foo ko làmb ci àdduna fekk ko fa danu baaxoo nag bu ñu demee ci ay yëngu-yëngu dañuy dem ci kilifa yi laaj leen nan la génne asaka laaj leen àdduna bi nan la war a dundee ci at mu bees mi ñu mi ñu mi ñu dugg sëriñ Moustapha defar ko ba tax na muy defaree Cheikh Modou Gueye di bàyyi faalu sëriñ Moustapha basiru di jàmbaari sëriñ Touba yoonu murid ji kenn mënu ko ci ndax njàmbaaram mama Samba nee na ma bàyyi la boo xam ni boo ko toppee xam ni sëriñ Touba rek ko ñor ak sëriñ Moustapha Bassirou Cheikh Modou Gueye ñu ngi lay ziar. asalaamaaleykum. wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yaa rabbi laka alhamdu kama yanbaghi li jalaali wajhika wa azim sultaanika aleykum salaam maa ngi nuyu ñëpp euh, téléspectateurs yëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu jullit yëpp di nuyu waa dëkk bi euh, leen ziar baax ci bis bu tedd bii ñu dugg tey muy euh, Ashura muy fukki fanu tamxarit euh, ñu ñu muy bis yu rëy boo xamee ni euh, lu bari xew na ci lu bari xew na si bis bi yonent bi indi na ko sa xadis yoon ñu bari tamit jéggal nañ leen ci Euh, suñu maam Adama si bis bii dañ ko jégale ci garab gi mu laaloon ci àjjana moom ak Hawa ba suñu borom wàcc leen si àdduna ñu wax ni rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa laa nokk na ne ma xaasirin yàlla ñoo tooñ suñu bopp waaye bu ñu jégalu yërëmoo ñu kon faw dañ perte euh, suñ maa Ibrahim bi euh, ñu ko sànnee si si safara sa yaa naru kooni badasan ala Ibrahim ci euh, bisu ashura si la si la muccee safara soosu yonte yàlla nooxun woote na juróom ñeenti téeméeri at ak juróom fukk junni at yu manqué juróom fukk ñu bañ ko topp wax suñu boroom ne ko ñi kat waar naa leen lépp loo xamee ni war naa leen ko wax naa leen ne yàlla kenn la waxoo leen teraanga jum leen defal moom moo tàll suuf si moo tàlla asamaan moo indi géej moo indi weer moo indi jant lépp wax naa ñu jaami la bañ nañu kon nag reel ñépp ah képp koo xam ni kii kéeféer la wedd la rek rey ko si gaal googu ñu duggoon nag ñi nga xam ni ñoo gëmoon yàlla dugg si gaal googu ñooñu si bisu tamxarit seen ñu teere si si it ba ah, yonent yàlla daawuda moom tamit mbiram moom mu amoon digganteem ak suñu boroom waaw ba juróom-ñeent fukk yooyu ak juróom-ñeent mu jël benn tokk muy téeméer suñu borom yónni malaayka yi ñu ñu ñu ñu mu ñëw ñëw mu kii leen atte leen waaw bisu tam xarit moom la ko suñu borom jéggale bàkkaar boobu euh, yonte yàlla ayuba bisu tam xarit la ko feer bi bàyyi yonte yàlla idris si lañ koy yégale si asamaan yonte yàlla insa si la juddu si lañ koy yégale tamit si ñaar bi asamaan bari bari bari si ay xew-xew xew na si bés bi kon ni xam ni bésu diine la bisu bésu njëggal la tamit waaw am na sëñ bi digle tamit ne bu ñëwee waaw na nga julli ñeenti ràkk waaw na nga jàng xul walaaw junni waaw na nga seeti ko wopp waaw na nga ziyaare boroom xam-xam na nga raay bopp jirim bu dee jullit waaw lu bare bare digle na ko si tamit ak bëggal tamit sa njaboot bëggal sa njaboot moo tax waaw guddi gi tey jii ñëpp dajaloo di di di di di di di togg ay cere ndax loolu moo xewoon waaw ndax moo moo gën a mën a yaatal njaboot gi waaw ci ñu mën a fexe ba mën a ñëpp mën a mën a mën a suuf bëggal leen ci ci ci xew yooyu waaw wax nga tamit na nga tusngalu nanga nga sangu sangu bi daf lay musa si ràgg tus nga daf lay musa si gumba bare bari bari te wax nañ ko si bis bi kon nag nañu xam ni bisu diine la waaw du waaw du bisu po waaw du bisu po bisu diine jàng alxuraan jàng xasaayit yi jaamu yàlla loolu moom moo war si bis bi ñaan suñu borom ñu teew ko da nga si déwén te kenn bañ a manqué si barke Sëñ Tuubaa cheikh bi jërëjëf tey 2STV ñëw seet si la tey jii boo amoon loo doon dénk nit ñi ak jamono ji ni mu mel cheikh bi tey lan nga leen di dénk. waaw moom lu yàlla wax rek yàlla moom wa maa xalaqtu jinna wal insa illaa liya'buduuni binduma jinna ñu jàmm wa maa leen lu ngeen jàmm laa ilaaha illaa ana fa'budu aqimu salaata zikri kenn du yàlla ku man jàmm leen ma. kon nag li dénk rek mooy li yàlla wax rek nañ ko jaamu ah, te moytu seytaane waaw ah, te xam ni tamit nañu ragal yàlla ragal yàlla na muy tokkalaa xaq toqaatihi nañu ragal yàlla kem ni mu waree ko ko ragale ragalee waaye tokkalaa mastataatum war ñu ragal ko suñu kam lay kàttan waa te xalaat bu baax tamit ne yow xem am na waa nu ko Sëñ Tuubaa waxee Euh, malaayka yi am nañu yonent yi am nañu lépp euh, euh, loo xam ne daal ëllëg da nga koy dayoog sa borom am na waaw kon nag nañu nañu nañu nañu nañu bàyyi nañu bàyyi suñu xel si loolu fa man kaana yarju liqaa rabbi fal ya'mal amalan saalihan wala yushrik bi ibaadati rabbi ahadan képp koo xamee ni wóor na danga daje ak sa borom ëllëg te dina la laaj ba mel ni yow rek lu mës a sàkk waaw kon nag na jëf-jëf ju rafet waaw te wala sukk ibaat rabbi ahadan te si diggante sa borom jaamu yi ba si boole kenn kon nag nañ ne gën a góorgóorlu baax a baax a baax di fàttali tamit bis bi ñu dët man muy màggalu Tuubaa daa mel ne commencé nga màggal nii nga def <laughs> macha allah màggalu Tuubaa moom lañu am waaw amuñu lu ko ëpp tamit si yoonu. am ci sas bu rëy nag. waaw dëgg la billaahi si Moussa Bachir moo ma digal ne pencum daaru Minam ànd na ñaar fukki ak benn ak Sëñ Blaat Mbàkke ñuy màggal Touba bi sëñ bi demee nag si la ma woo ne ma nag waaw dañu yaakaaroon sax ne dama sàgganee ma pencum daaru Minam naa bëggoon yow nag Cheikh Modou nga dundalal ma euh, penc mi waa si jàng alxuraan ak jàng xasaay di ak waxtaan sëriñ Tuubaa waaw buñ ne suba la màggal gi eh, fukki waxtu ba bërset ak bisu màggal gi. TV maa ngi si invité bu baax a baax a baax. waaw bu kenn des na ñëpp ñëw nee nee na ma bu ma kenn gën a xumb am penc. waaw mm, am xumb nag xummeel goo xamee nag ci loolu la. waaw si si si sunna si jàng wax waa kay noonu lay xumbe noonu lay xumbe waaw kon nag. Euh, sëñ Muntaxa tamit waaw yeesalal na mu jot waaw sëñ Musaa naawel si laay awee saa ne sëñ nee na jox naa la ko ba faw waaye du tee at mu jot naa ko wax sëñ Musaa moo ko sëñ Muntaxa mu yeesalaat ñu bés bi ndax yeesalaat gi nag ndigal ne day ànd ndimbal waaw loolu nag moom laa si jublu waaw sëñ bi nag nga ñu ñun bu ñu egsee ci yow rek dañuy yeesalaat suñu njébbal gën na ci sawet ndax xam na ni jàmbaar yi sëñ Tuubaa nga moo tax yu mel nii ci at mu bees mi nuy dugg dañuy faral di ñëw ci ñu baax ñu mel ni yow nga xam ni boo ñaanee réew mi sentir ni ñaan nga ñu bëgg nga ñaanal Sénégal mu am jàmm sariñ sumariñ sallahu taala seen wasam tasima alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din iyyaka mustaqim siraat lazina an'amta alayhim xayri maxdubi alayhim wala daalin bisma xayminu mujraha bi qudratihi subhanahu wa hum musal ahmalin subla sam bismillahi sadikatan tabarakallahu fi talin falaaw yekk law naa fi am yasma ma ati safi jawli istidawati ma faaxata rabbi kulli zulun barke Sëñ Tuubaa rabbana taqabbal innaka samiul alim barke Sëñ Tuubaa amin DSS ñëw na di taaje boon. Dieye ñu ngi lay sant bu baax di la ñaanal yàlla guddal sa fan. ba ngay riis bi jërëjëf macha allah shukran wa marhaban ñu ngi leen sant di leen gërëm jërëjëf Abdou Aziz jërëjëf waaye kilifa yi nga seeti ak artistes yeeg mbëri làmb yi yëpp jërëjëf ci loolu la ñuy jaaree di féliciter Balla Gaye 2 le lion de Guédiawaye Balla Gaye ñu koy féliciter bu baax a baax ci ndam li ko yàlla may démb ci arène nationale contre Gris Bordeaux waaye di encourager Gris Bordeaux bu baax a baax euh, Gris maa ngi wax waa Médina ak waa Fass ak waa Gueule Tapée nanu yeesalaat ak sa soppi yi waa Ndakaaru waaye sa soppi yi travers le monde travers le Sénégal nanu yeesalaat seen cofeel ci yow nanu yeesalaat seen bëgg-bëgg ak seen gëm-gëm ak seenu engagement jime ci yow li nga wane démb ci làmb ji ku la seetaan tey àtt dëgg xam na jom rek nga bëri fulla ak fayda rek nga bëri waaye pas-pas ak dignité ak personnalité bu ma sëkk nga bëri zéro ku taxaw na la lii nga waroon def day caaxaan ak li ko neex rek la nekk di wax Gris doo li nga war a def lépp def nga ko barke Sëriñ Bàmba bi xeex jotee xeex nga bi song jotee song nga bi dóor jotee dóor nga bi bëri kaw jotee bëri nga kaw bi bëri suuf jotee bëri nga bëri suuf yàlla mooy may ndam il faut que nit ñi xam ne lii sport de combat la da ngay daan baa ñu daan la ak lu man a xew da ngay daan mbaa ñu daan la ndam li newul ci loxo ma sàmba newul ci loxo ma dem ci loxo allah subhanahu wa taala la mooy maye ndam moo may Balla gay 2 ndam démb nam daan mayee Gris Bordeaux barki démb moo may Balla Gaye 2 démb xañ Gris nam daan xañee Balla Gaye démb il faut que sénégalais yi ñu bàyyi bu defet amee rek ku nu jug di wax di yàq der di wax wax du ñaaw ak di yóbbante ay kàddu yoo xam ne boo ko déggee dina la frustré ba nga bëgg bàyyi sa métier te dara ko encore trop moromi magam yee fi nekk ak moromi baayam yi tabatay ñu ngi bëre dafa war a bëre ba ci kanam ay na baay ak mat naag yi fi jeex naag yooyu yëpp c'est des fausses information des fausses des fausses histoires c'est des histoires de kaboy amut solo nañu ko bàyyi mu liggéey waaw nañu ko bàyyi mu liggéey c'est très important loolu moom dama ne woon message la bu ma ñor la boo xam ne su ma su ma yegg sekki télé bi dinaa ko lancé Sénégalais yi bàyyi ci xe la man nag ku xam ne su ma diggante ak Balla Gaye 2 Omar Sakho le lion de Guédiawaye kooku bi ma koy bëgg di ko topp booba caay ju mag laa daan def ñëw toog ci pot làmb bi muy nelaw ma toog di xaar mu yeewu ngir ma gis ko booba wayu ma feccu ma feeñu ma télé animé wu ma cantu ma defu ma dara kenn xamu ma ma bëgg ko mu bëgg ma téye ma def ma rakkam def ma doomam boole ma ci njabootam li ma lay wax ni 2010 la te ku ne xam ne ne Omaro 2011 la door jëm 2022 te maag Balla Gaye doxal nañu atub lëmb ma doog a feeñ ci la scène musicale nit ngi doog ma bàyyi xel ci wàllu way cant kon kooku boo amee ndam mel na ni maa am ndam Sakho Elimane maa ngi lay ñaanal ndam li yàlla na la jikk te yàlla guddal sa fan te wéral say cër bu baax a baax naa si euh, tubaarkàlla macha allah euh, cere mbaatu ji am na solo. am na solo cere mbaatu ji beneen dimension la. cere cere bi yiw na seen la waaye li ma gën a yéem am ni mu ñëw Sali damay génn sax cere ji waaye taabul bi baa xam nga ne taabul boobu day jël fanweeri nit. non Omar boo duggee ci mbaaju ci wàllu dressage doo juum. vaisselle yow man c'est jamais vu. mais vitrine du ay caaxaan. mbaaco lu mu teg ci taable bi moo koy jaay. dëgg la te dressé na dressé bu man la sama kër yëpp moo ko jaay. waaw dressé na macha allah dressé bu chic dressé bu rëbbul teg na lépp fi mu ko war a teg macha allah moo koy jaay nag. c'est normal. Hmm. jaay na loo xamante ne nii lu baax la lu rafet la te ni mu ko organisé ci table am tam macha allah. vitrine hmm. chez Mbathio ñu ngi koy encouragé de passage. di ko hmm. wax ne ko ni mu koy jaayee rek la ko lalee biir këram. sagal na boppam sagal na boppam ndax nit a ngi jaay lu mu dundeewul mhm. nit a ngi jaay lu mu lekkul naanu ca sañsewu ca sagu ca mhm. waaye mbaaco li muy jaay ku xool li mu yëf tey recevoir digestive yi def lii mu def xam nga ne am di million li mbaaco di jaay mi ngi ci noos ndax taabal yi gën ci taabal yi la teg këram waaye tubaarkàl la vaisselle yi gën ci vaisselle yi la teg ci kaw taabalam man vaisselle bu lu sama kër mbaaco moo ko jaay affaire ñaareel la xam nga ñaareel yi dañoo am jom te mbaaco te mbaaco wax yàlla mbaaco jëkkëram Bathio ñaareel la. xam nga Bathio kañ la am dëkk. kon yow yëgul géej gi di. Bathio Ndiaye mii laa reen di mbalax. laa reen di mbalax ñaareel la. Bathio Ndiaye fan laa Ndiaye ñaareel la. ku ko takk. directeur. benn directeur mais lii la. kilifa la. ah bon. ki ka takk kilifa la. te ñaareel la. allahu ñaareel la. c'est du jamais vu parce que tegaay ñaareel la tef. def ay dressé ñaareel ñaareel ñoo génnee ay kuddu or. dëgg la kuddu or. Mm-hmm. ñaareel la ko génnee. dëgg la or. Mm-hmm. ñaareel la ko génnee. Mm-hmm. di taxal si dëkk bi pet. Eh. ñaareel la ko doon def. ñaareel yu ndaw yi. waaw. añoo yi waaw añoo yi añoo de lait yi añoo <laughs> de dix di dix kilos yi ñooy taxal seen jëkkër yi pipet ah ñaareel ngay dem këram mu jox la kaas yoo xamante ne si radisan nga gis. allah akbar kooku ñaareel la Mbathio njaay boo xoolee nu mu dressé table bi nga xamante ne dressé dressé ñaareel la. kon Mbathio deuxième dame la koy nëbb. da koy nëbb de kon man man yëguma ko te man sama nit la Mbathio duñu xëy bis te déggante wuñu duñu xëy bis te gisante wuñu sama nit la Mbathio. Eh, man li jaaxal na ma trop boppam de. Mbathio takk nañ ko. yàgg na. bañ koy takk maa ngi toog. Eh. <laughs> révélation man maa ngi toog. ca maye ga ca maye lii c'est la révélation man maa ngi toog nagaa gaa yi ci moom ah mu jéem Amdi jërëjëf ah yow tam loolu am na solo ba pare beneen affaire bi may waxaat nag mooy euh, émission bii yàlla bu mu jeex ah bon <laughs> parce que xale yi xale yi foo mu jeex nag mi ngi guddi xale yi dañoo ah. jom Amdi mi ngi guddi foo mu jeex parce que dama non déglu ma rek parce que te nag lekk gunu cere dañoo def sacrifice bañ a lekk cere teel a départ teel a yegg si teel a préparé suñu émission toog ngir bégal sénégalais yi ba ñu bég ñu doog a dem lekk cere te xam nga cere lu mu gën a guddi gën a sekk gën a neewi. même fu mu toll foo xam ne day. Omar après da ngay laal flécha bu oyof bi rek. kenn waxatu ko. loolu foofu la lenn xam Omar maa ngi dugg point bu am solo. waaw bismillah point bu muy dugg dama bëgg ngeen déglu ma sénégalais yi. déglu ma attentivement waaw léegi may ma tuuti ma ñëw. <laughs> balaa ngaa dugg li ma bëgg a wax. xaaral li ma bëgg a wax si njombe gi nga xamante ne xale yi dañ koy def fii. waaw balaa ngaa dugg ci ay point. di si di si di si di si masqué wu. waaw di jaay sauvage. di doon kooba. di sànni ay message maa ngi gis message yi daanu sama téléphone. na waaye damaa bëgg ñu teey te xam ne xale yii. ñaari xale yi bu fekkee mën a xañ jàmm. waaw ñii ñoo fii riigu riigu riigu. abu ñuy or maa ko wax abu ñu yére abu ñu golos dëgg la te dañuy pare ñibbi daawoo lii waaye ute xale yi nga xam ne ñu pare fu ñu jaar fa Dakar foo tax guddi dajanteeg ñoom ëpp na am di yaay yaay tëj maa ngi tëj li ñu dese woon pare ma li ñu dese woon ci waxtu bareetul eh. réalisateur bu mag bi Amadou Ndiaye ah Amadou Ndiaye mayaat mi ngi ñuy mi ngi ñuy def signe ci bàyyi loo xel ci nii mhm. lu neex du doy te daanaka 16 minutes moo des xaw ma 14 minutes ci émission bi ndax une heure pile la ñu war a tàggoog soppe yi te daanaka des na 14 minutes Moustapha Diallo sonn na sama ingénieur de son bu mag bi mu baax mi maa ngi ko ñaane yàlla guddal fanam te wéral ay cëram di gërëm Bruno Bruno cameraman bu mag boobu nga xam ne tubaarkàlla moo àndoon ak Khadija Patra waaye noonu laay gërëmee Ousmane régisseur bu mag bi ma nga foofee ci régie ba def def liggéey bu solo waaye am di la grand cameraman ànd suma xarit suma doomu yaay maa ngi ko ñaanal moom it yàlla guddal fanam te ay cëram mbokkum yaay béy di loo dunu doyul waaye duudu kan euh, technicien vidéo régisseur moom it maa ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam te wéral ay cëram bu baax a baax waaye fàttewu ma aussi fàttewu ma ki nga xam ne mooy Mansour Matar ñu ngi koy nuyu bu baax moom it ci kër gi la nekk technicien la ak ki nga xam ne mooy Mansour ingénieur euh, euh, ingénieur la ci wàllu lumière moom it di def liggéey ba am solo ci kër gi waaye Babel yaakaar ne Mbaaco li mu derese ak li mu teg ci ay vaisselle gu gone gu toogul toogaay bu dëgër doo ko def. yoo xam ne kër Mbaaj. Mm-hmm. Ah, waaw xaar ma yeggale ak baax nga doog a ñëw nga doog a toogaay bu dëgër këcc la Mbacke toogee. Mm-hmm. ci taabal bi mu teg. Mm-hmm. yaakaar naa ne taabalu fanweeri nit. 15 personnes nday joor 15 personnes càmmoñ ñaar ki digg bi. taabal angle ba angle. boo ko dresee sa dépense war naa mën a doy. kon xale bi waajal na boppam te it pare na boppam. waaye ay veselam boo ko xoolee xam na cofantewu ko. vesel yi gën ci vesel la teg dressé ko. noo gisee cere mbaaco bi ak mafia bi am nag cere ji. waa mbaaco dafa joxe exemple rek ci réew mi. Hmm. jaay lu baax terewu laa bëgg lu baax. dëgg la kuy xalam di ca jaayu barke ba. yaay borom hmm. vitrine chez Mbaaco àdduna xam nañ ko. Hmm. monde entier xam nañ ko kenn dootu ko laam-laamee. vaisselle bu baax bu rafet bu jongoma boo war a taajee sa kër dressé bégal say am di jàmm bégal say mbokk bégal sa borom kër. mbaa ki lay waaj denc loolu ku ne xam na ne Mbaaco ci mën. moo ciy meilleur mm. vitrine chez Mbathio mu koy nuyu mu mm. togg cere ji ci jom ci personnalité ci dignité sama waa jooju borom Koungheul am na jom am na personnalité nitu valeur la nit ku baax la mm. ma koy encouragé di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal mucc ak la ak sutura ma ciy dugg nag di ci nuyu au passage sama góor sama xarit jabaram noonu la dressé noonu la def mami dammeel bi madame Diop série Mansour Diop bete bete bi Mansour mu baax mi Mansour mu baax mi ma jigéen moo bari jom Serigne Babacar si bi moo bari jom chéri mami dameel sama aawa bi nga xam ne tasul kër ga dëbbul kër ga jaaxalul sama yaay ma jigéen dama ko ne sama góor ma ne ko maa la mag rek ngay dégg waaye doo dégg maa la gën mooy bete bete nag gor pire baayu Dabbaax Malick baayu Abdou Aziz kenn du moom yal na la yàlla la fal cat nga yeggali sa yéene benn bu góor bu gën fukki góor ci ndayam baax yërëm ndayam taxaw ndayam mu am jabar ju baax juñ naan mami mm. mami dameel sama jeeg boobu nga xam ne kenn du moom moo bëgg goroom bëgg ay njëkkeen bëgg ñëpp tàqalewu maag jëkkëram mooy nuyu Mansour di ko ñaanal di ko xam ne moom sama yëf la maa ko moom mhm. mu nekk nit ku baax di la wax ni Mbaaco Ndiaye borom vitrine chez Mbaaco li nga dressé di nga yëngal réew mi déwén di nga indi coow lu bu rëy ci réew mi ndax sa table ji nga teg sa vaisselle yi nga teg sa cere ji nga togg togg ko ci discipline <laughs> dootoo ko defat li am di jub ñoo wax nag du ma ci dugg nee na ñaareel nga la femme du boss. yeneen ak yeneen du ma ci dugg. dëgg la du ma ci dugg jërëjëf Babel loolu laa doon solo maa ngi sama père. sama papa la Bélé Guèye. ah Bélé sama mhm. papa la mhm. ah. ah. ni ma ni ma ni ma ni ma Lamine Ndaw juree noonu la ma Bélé juree. ah sama bàyyi bopp la andi li ñu cërale woon ci waxtu fukki minute ci des. nañ tàggatoo ah damay yeesal sama kontaan jëmi ci yow balaa ma lay jox nga def sa kàddu gu mujj. ma doog a tëj ak suma jigéen ñi. am di maa ngi am kontaan bu rëy fu ma la wooyee nga jóg wuy si ma ndax tubaarkàlla yaakaar naa ne plateau bi spécial tamxarit mënoon naa ko def ak sama ñaari jigéen ñi rek te du ko tere neex nag ndax na ko wal ba mu mokk danañ ko dëbb ba mu mokk ru mbax waaye tubaarkàlla namm la ak bëgg la ak di la di la yëg ci sama wet ndax xam naa ne fu ma toog boo nekkee ci sama wet ci jàmm laay yendoo ci jàmm laay fanaan waral ma a la kar na la peer nga ne ma naam ma la ñëwal toog tey daa war a yëngu nga ñëw te bi nga ñëwee yëngu la mhm. maa ngi lay ñaanal yàlla sa jàmm yàgg di la xam ne nag plateau bi sa plateau la mhm. bu la hésité te bul xalaat saa boo bëggee ñëw ñëwal fii yaa ko moom ma mhm. bàyyi la nga tàggatoo ak soppe yi ba ba yeneen di jotaay incha allah dëgg la Amaro euh, kontaan naa jërëjëf père li ma kontaan mooy euh, wax dëgg na yàlla tey moom damay damay baal sax délicace yi ndax wax ci ñaar ñi bu ñu wax ci ñoom damay bëgg dëgg la parce que dinaan ma ay noo waaw yéen nii ngeen mel nangam ndàngam nu ñu mel. nu ñu mel lan moo xew. lan moo xew. technique ñu leen gën a jongoma. waaw technique ñi leen gën a solucé. technique ñu leen gën a pare. technique ñi nga xamante ne ñoo leen gën a doon intellectuel. technique ñoo xamante ne bi ñuy wax dañuy wax ndànk. technique ñoo xamante ne rek si une femme. dëgg ay femme lañ. plateau baa ngi jalaajoo. dëgg la xeeñ kenn xamul lan la. kenn xamul lan la <laughs> kenn xamul fu mu jógee. kenn xamul fu mu jógee ñun léegi nañ ne mi ngi xeeñ rek waaye ba tey xamuñu fu mu jógee. ba léegi xamuñu fu mu jógee. wax dëgg yàlla mais ay plateau yoo xamante ne gay ngay toog muy xeeñ ay ay diw ay résonance <gasps> kenn xamul <laughs> kenn xamul dem ne ngeen toog. Omaro dama ne fi nga jàpp foofu la. ñaan ñi nga jàpp man des fois may toog bi ñu seetaan parce que di nga télé. Eh. dafa nekk affaire boo xamante ne boo koy seetaan. Mm. da ngay teg xale yu jongoma. dëgg la <laughs> c'est très important. mais bañ a teg xale yoo xamante ni foo ne naam Dramé ñu séen leen. Mm. foo ne naam Dramé ñu gis leen. Mm. yooyu dañuy zappe. mais da ngay teg yoo xamante ne bu zappe yem ci kii daal ne eh taxaw zappe yem ci kii ne eh taxaw. léegi ñu silice Omar. dëgg la mi ñëw. ah la laf cat. jërëjëf seen wax si yiw na. yàlla rafet na. teg ngeen ko si yoon. Mhm. teg ngeen ko si jàmm. teg ngeen ko si fair play. Mhm. boole la dara wax te nag li mu si gën a neex mooy ay përëm xam nga përëm boo ko solee. Mhm. jaaro përëm boo ko solee. wala seen përëm nga takk ko. yaa ngi boo takkee lunette ak jël lumière bu la tàppee da lay def de yeux loolu tax ngay ngay katarak nga ne mais bu dee or la day raxas bët. la xale yi or lañ takk xol. dëgg la ay or yu bari. or yu bari doole yëkkati eh, am di zumal ma lii zumal ma or yi bari doole laay ah, ndeysaan am di zumal lii. laay ndeysaan am di zumal lii. laay loo leen wax ci lu baax zumal lii zumal lii loo leen bàq doyul. sama zumal lii rek daf leen nànk rek am réalisateur leen. waaw ah. jël xale yi après ba pare nga jël ajaratu dënn bi. nga laay laay la laa kii mooy congolong. <laughs> Ah. <laughs> loo baaxul doyul. maa la wax léegi nag foofu laay tàggatoo nag vraiment di gërëm. mooy mbokk téléspectateur yëpp. di 2S. ah di nuyu ñëpp di nuyu surtout waa Kastor. waaw naan leen ah wax. tëgg sama cosaan waaw ca cosaan. Kastor sama cosaan fa laa juddoo ay waaye booy laa njëkk dégg moo tax. coow rayu ma ah. ca marché ba laa juddoo. maa lox loolu ay waaye booy ju jolli. ay wa soppaat wa laaj ay wa wa Dakar pour di yuux di li ngay jaay ma tëdd sama néeg maam di leen dégg. moo tax coow. Uh-huh. ku jàpp na man na maa rey yaa may njëkk dee yow. maa lox loolu léegi nag fi mu nekk nii di nuyu nag ki nga xamante ne mooy Nafi Thiam mu ngi fii Sénégal maa ngi koy nuyu bu baax a baax ah di nuyu Eva nekk foofu Amérique ñëw na fii Sénégal maa ngi koy bu baax a baax di nuyu Nafi Thiam encore Mémé dëgg ñoom ñëpp ana maa ngi la ñuy nuyu yéen ñëpp waa Kastoor yëpp bàyyiwuma kenn mm. kenn kenn kenn kenn kenn waa ay bi maa ngi la ñuy nuyu ñu ngi toog ci buntu kër ga ñoom Roqaye Diouf ah ñoom ñoom Bila grand Bila ah Baye Jara ñoom ñëpp maa ngi la nuyu. jërëjëf yéen ñëpp nuyu naa leen ah. jërëjëf waay jërëjëf mi ñoo loolu am na solo ñu ngi lay. sant baax di la ñaanal jàmm ju sax yàlla nga mucc am di yàlla nga wér. di am ci yow kontaan bu rëy rëy suma rakk ji la belle la charmante Nancy. bàyyi la nga tàggatoo ak soppe doyalu ma waaye lu baax bu doon doy réeri doy. dëgg la Omar ci nag du xaj ci cin ci xaj Omar rek ba àllarba incha allah. incha allah ba ci grand bi gi mercredi. incha allah Omar maa ngi lay tàggu di tàggu Sali di tàggu tonton Amdi. am la man xale bu ñu mënee tonton rek may bëgg a dee. yéen a ngi may yóbbu de wax gaxan. waaw dama ko mujjee bëgg dama ko mujjee bëgg di tàggu euh, no fidèles amis téléspectateurs de la 2STV di tàggu sama tata yi may seetaan sama tonton yi di tàggu sama yaay xam naa ne mi ngi scotché di seetaan di ko dewee hmm. déwéne ci di wax nekk ñu ngi leen di jox rendez-vous incha allah mercredi 18h 19h ci Grand Bégué di leen wax nag tey ci tamxarit bi dëpp leen bool yi ñaan bu leen xëyee dippi leen sël ci ndox mi xool asamaan si gis Faatumata bintu yaa Rasulilaay incha allah gis nga lu amiin waay amee waaye la bel naa si loolu am na solo jërëjëf maa ngi am kontaan bu baax ci toogaay bi di gërëm sa yaay ji di ko nuyu bu baax a baax mm-hmm. suma yaay bopp ji uh-huh. yàlla na jàmmam yàgg di nuyu ñu la bëgg ñëpp te di la seetaan toogaay wi moom day sax mm-hmm, waaw la ku yabu rek mu neex la Omar ci digg bi naa si càmmañom waaw avi la incha allah yabu bëgg rek te nopp rek te xam ne bii toogaay sama toogaay te des fois nag te des fois nag damay jékki-jékki rek à tout moment mun naa fël lu ñëw. saa bu la neexee ñëw plateau bi sa plateau la. Babel. lu mu si nag baaxul. ma ne ko influenceuse mag bi ajaratu Sali Babel mu baax mi gis naa la nga ma cuubal. lu mu waxul baaxul. Babel ma gis naa la nga ma cuubal gis naa la nga ma takkal ci or. waaye gis naa it la nga ma tagalul ca kaw. foofa toj tagal ji pantul de. Ah, ah. ma nga jub xocc na ñoll ca kaw. maa wax loolu. sant naa sagu influenceuse bu mag bi loo waxul baaxul. influenceuse bu mag bi loo sinabul baaxul. Ah, ah. loo wanewul loo jaayul baaxul. Mm, mm. nga ne nag laa dégestive laa ci wóolu ñoom laa àndal amuñu sa fay. waaye di nga xam ne mbir mi tim mbax ri mbax la dana la ko delloo ba mu tàggool. waa Omar may kontaan ñi ma la defal moo jaadu. nit kenn du ko lekk kenn du ko naan as gor gor rek lay doon. Mm. liñ njariñ sama sañse bii nag li muy rëy rëy rëy rëy ki ko waral mooy tubaar fa kàll macha allah ki may sëyal. très bien moomoo faal mori mi ci ndar mori mi ci waalo alipenda balla bee ma kumba sanjee ma déggéen mi ci waalo mooree nga ndar mooree nga waalo alipenda balla bee maajoor la ñu wooyee baayam moom lañ jagaa jëte néeguñu koo suul faamaay yaayam sama jëkkër ji mooree ak maajoor lu ma def yaa ko moom mm. mamita coiffure nag madame soxna jaltaay ah. mm. moom ma makkiyee ba mu jonga fit bopp bi ci ginnaaw ba mu dëgër teg ci musóor mu ne noon hmm. jaaltaay kookoy mamita hmm. fi mu ne nii ku la yàlla mënti booleel ci réew mi damay jàpp ci loxoom teg ko ci ay loxoom mamita coiffure madame soxna muy sama nit ku yàgg ak man ku ma jàpp ku ma téye mbokkum yaayam elmem yaayu Badara ma kontaan bég sama xol sedd di souhaité sama mag ji del Péro mi nga xam ne tey moo nekk démb moo nekkoon un an de mariage am chéri sama sang bi del Péro lat waaw baax bëgg say mbokk bëgg say rak sama mag ji dama lay sagoo di la tiitaroo séeri caama sama jéeg bi un an démb defoo fi deli waxoo fi deli mbokk mi yaayam aji kamara ak maam faatu di sant ñëpp di gërëm sama mbokk yëpp di bég ci àdduna bi ñëpp di bég ci téléspectateurs yi ñuy seetaan di leen wax ni nii rek lay demee spécial tam xarit la ñu woote woon tey ànd ci ceeg yéen lépp loo xamante ni sénégalais yi moom lañ bëgg rek 2STV da ciy ànd ak ñun ñu ciy ànd bi nga xam ne tubaar fa kaala macha allah dafa meilleur mi yëngu na daal Omar bég naa ci ñëpp kontaan naa ci ñëpp grand mbubb bi ma sol nag xaadim Juuf ma ko ñawal macha allah may saag ma taar Omar moom yombul daam ko jëmberi sama góor sama xarit bàyyi maam jaara nga baax riis gën mbokkum yaayam Anta Diouf mm. ajaratu Njóoba Caam la ñu wooye sa yaay alaaji asanay sa baay mm. ba nga jàppee ba tey bàyyi woo kontaan naa ci grand mbubb bi ba nga ma ko ñawalee yàgg na waaye tey la ko yàlla dogal ma sol ko kaabin ak di nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu ngilaan shop na jaañ sama waajooju nga xam lu mu am may ma fu mu jëm yóbbu ma mm. na fi jaañ maa ngi lay jaajëfal ci at mu bees mi di la mm. ñaanal jàmm borom ngilaan shop borom brodé yu baax yi borom daal yeeg saagi borom lépp na fi ma la bàyyi te nee naa la jàkk du ma geestu man as gor laa mm. bi nga jàppee ba tey bàyyi woo lu ko ànd ak man ci 2STV yi bëgg ma lu ma ne yaa may jaañ demba tabara jaañ demba kontaan ci ñëpp kontaan ci sénégalais nday faa sàmb mënu koo ñàkk bañ a nuyu jataayu sëñ Fallook saati séeri zaal mhm. sama mag ji géwél bu gën géer mhm. riis baax gën nday faatu borom Italie nday faat sëba maa ngi lay mhm. nuyu depuis géej waaye di nuy waa golf gépp di nuyu waa Cambérène 2 di nuyu ñëpp su ma limee damay juum jërëjëf ñëpp ma bëgg te mënu maa matale lépp bilaay ndeysaan naa si loolu am na solo Babel jërëjëf sant nañu xol sedd na sangu nañu rek te tubaakaal la am loo bëgg wax waaw li mañ sol ni waa jàppari ñoo ma ko jox falaa doon ñëw dama Euh, Babel wax ki ko solal rek. waaw xel dem ci. xaalis bu foo ma solal may saag Matar Omar euh, moom yombul. Omar maa ngi sant euh, Madina Boutique. sama frère la sëñ Mbacke. defal na ma voile chiffon brocart bu tombé. très bien meilleur am na ci yeneen couleur. Mhm. ku ko bëgg da koy fekk marché HLM ma jongu buur séeréer meilleur homme. très am di ko man jàppari moo ñëw ñaw bi. waaw mbenn kan. nekk fi HLM. waaw muy commerçant bu mag. Mm. mbenn mm, waaw mbenn kenn moom. sama buba ngi sama kër bii di ñëw moom laay sol. mbenn kan moo ma jox tissu bi. waaw yaa ngi dégg sponsor leader Mbarakis. waaw Blingué. très bien yaa ngi dégg poos yi. calpe bi li si nekk. Omaro moo ko jox. mooy mooy kaape yi kaape yi kaape yi. ñoo ma ko jox. yaa ngi dégg léegi nag. sëleet maa ba caleçon ba sama jabar. waaw la loolu ma mayee benn waxtu. loolu am na solo mu nuyu Soda papa daam yaay maman Mbuub. macha allah sama mag ji baax. borom immobilier borom immobilier kër yaay ngi mbokkum yaayum nday njaay borom Amérique mbokkum yaayum tubaar fakalla macha allah màgge taaw. Mm, mm. Soda papa Babel merci beaucoup. Mm-hmm. Amadou Ndiaye jërëjëf maa ngi yasalaat suma cant. Mm-hmm. ak suma xol bu sedd guy jëme ci yow yàgg équipe technique bi nga xam ne. Mm-hmm. ñoo àndoon ak yow liggéey bi. waaye suma doomu yaay Moustapha Diallo du ko fàtte benn yoon mi ci son gërëm Mam Mor borom élégance couture. sama rakk jooju moo a ñawal sama doom la sama rakk la Mam Mor borom dëkk bi yëngu na fan yi xale yi mëntuñ toog mëntuñ taxaw. Omaro li ngay sañ sa fan yi Omaro deux cou deux deux tons yi nga jël waaye coupe vestimentaire yi nga xam ne moom ngay sañ sa tubarkaal la. Omaro coupe chemise yi ngay sañ sa fan yi kenn àttanatu ko. xale yaa ngi supp jalañ xale yaa ngi jooy xale yaa ngi xuloo xale yaa ngi reyante di woo sama yaay Adja Fando naan ko yaay juboo la ma yaay xuloo bi yàgg na yaay foofu ma juboo kenn du juboo kenn du juboo nan tàllal fu ñu xam nañ jëm tubarkàlla macha allah maam Mor fi jaar nag borom élégance couture yal na yàlla guddal faram te wéral ay cëram bu baax a baax sama rakk la sama doom la maa ngi ko ñaanal mu am jàmm waaye di gërëm bu baax a baax a baax Isi Waal Isi Waal mbokki ni ma leen ko waxee woon rek suma suma entreprise la bu yees boo xam ne doomi réew mee ko sos li tax ma ne suma entreprise la mooy dama cee gis sama bopp li waral ma gis sama bopp mooy jeune ni man moo ko taxawal dama daan dégg wàllu pétrole ak wàllu gaz ak wàllu wàllu essence ay mag yu am 60 ans 70 ans da nga ko investir ci réew Sénégal waaye maa ngi doogee gis xale bu am fanweeri at ak juróom investir ci lu jëm ci wàllu pétrole ak gaz ak li nga xam ne mooy tubarkàlla wàllu wàllu wàllu wàllu wàllu essence kooku mooy Isi Oual Isi Oual maa ngi ko ñaanal yàlla guddal fanam ci wéral ay cëram mi ngi def ay camion di ci sol gaz bu doy di ci sol essence bu doy di ci sos tubarkàlla li nga xam ne mooy pétrole bu doy di ko yóbbu ci sous région bi Gambie Mali Guinée ba Côte d'Ivoire ñi ngi jot seen wàll te doomi réew mee ko investir doomi réew mee ko moom ku ñu war a taxawul la ku ñu war a bàyyi xel la ku ñu war a jàppale la isi uwaal àllu réew mi la suñu alal la yàlla seen jàmm yàgg waaye fàllaw bu sa jox réew mi càmmañal ma réema kunta bàyyi mbenn borom sali sama sponsor boobu nga xam ne moo may jox appartement yi di ma jox villa yi chaque week may dem sali di week-end di noppal suma yaram aw fayam mais jiili CSB toj na dëkk bi fëldu kat bi le 10 lay génn dans deux jours incha allahu rabbi te yéen xam ngeen ne yéen sénégalais yi jiili CSB moo représenté li nga xam ne mooy Samsung fii ci Afrique sowu jant na ci Sénégal moo ko am en exclusivité le 10 le 11 laa la tegal le douze bu génnee fee le 10 11 12 ñaari fan après boo ñëwee ci jiidi CSB moo xam kolobaan la moo xam Rompé Cité góor gi la dinga fa fekk fël du kat bu yees pekk bu dajjeegul yaa koy dajji nga falaa la sànne ku def lu la saf suma sponsor bu mag boobu maa ngi ko ñaanal yàlla guddal fanam ci wéral ay cëram jiri loo dunu doyul kaa pay sponsor leader ambassadeur sponsor leader grand bégué sponsor leader grand plateau bii nga xam ne mooy spécial Tamxarit ak Sénico amoon seen fay yàlla may rek pay yàlla na fayal boppam mbokki jërë ngeen jëf ba àllarba ak jàmm incha allah marhaban wa shukran